auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti nit ñi yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision wal fajri tey ñuy waxtaane ci diin ak jamono wàllu yoon ndax ñu ngi waxtaane mbiru Karim Wade Karim Wade nag bokk ci ñi nga xamante ne dañoo bokk ci ñu daan duppee dignitaire de l'ancien régime nga xam ne dañu waxoon ne ci wàllu tract bien ak kii maanaam li ñuy topp alal di jàpp ne lewut ci moom la bokkoon benn nag te fa nekkoon demande sociale demande sociale boobu nag àgg ba ci ñu teg ko loxo ci ñaar fukk ak juróomi nit ñoo xamante ne ñoom lañ waxoon dañoo jël alalu réew mi luubal ko yóbbu ko ca bitim réew loolu nag ñu nekk ci di àtte ba kooku di Karim Wade ñu tëjoon ko kon condamné ko juróom-benni at ak itam alamaan ko lu toll ci lu ëpp euh, cent trente cent cinq milliards lañ waxoon waaye ñu dem ba mu yàgg itam mbir moomu di ruus di ruus ba indiwaat sax beneen coow. ci diggante xaalis boobu fañ ko natoon ak fi mu wàcc waaye itam ñu teg ko ñetti at ak ñaari weer yoo xamante ni ba mu jeexee dañ koy bu fale ca Qatar booba ba léegi itam ñëwaatul loolu nag ñuy dox ba itam fan yi ñu génn avocat ki nga xamante ne mooy ancien ministre d'État ne rapportu banque mondiale bañ duppe woon rapport sur le compte bancaire de Karim Wade et Khalil Bourgi fële ca Monaco ñu ne nag ñoom bañ defee seen enquête te na ko Sénégal sàkku woon demoon nañ ba itam ca France ñooñu di àtte mbir ma ne Karim Wade euh, tàqewul dara ci mbir moomu laalewu ci dara rapportu banque mondiale boobu nag yëkkatiwaat wax joo xamante ne mooy rek ne comme nag setal nañ ko ci mbiru banque mondiale boobu lan la war a juraat ci dossier bi ndax dañ ne nag bañ ko xamee yàgg na waaye ba léegi nag dañ ko versé wuloon ci dossier ki nga xamante te versé ko ci moo waroon yóbbu kooku nga xam mooy Karim Wade ci lu ñuy duppe ay non maanaam bu dem bañ àgg ci jaratul topp loolu yëpp nekk nag ay doxalin yoo xamante ne ci wàllu politique ñu bëri gis nañ ci loo xamante ne am nañ ci luñ ci war a leeral waaye itam am ci beneen gisin ci njàngat mi ak ci niñ ko yéexee wax ak itam biñ ko xamee ñoom avocat yi ñu ñaawlu doxalin boobu ci wàllu procédure loolu yëpp nekk tey nag lu ñuy yóbbuwaat bañ ne ndax Karim Wade moomu dañ koy yóbbuwaat ci non-lieu wala bu fekkente ne itam niñ koy waxee dafa war a ñëwaat ci réew mi ndax dafa nekk ci tànk dellusiwaat ci réew mi bi ñëwee itam ndax moom mi candidat parti démocratique sénégalais day mën a bokk ci élection ak ak lan moo ko mën a may ndax dossier bi war na tegu ci balance bi bi am lu mu daaneel loo xamante ni itam da koy amaat ngañaay ci mbir moomu ci loolu lañu fas yéene waxtaan tey ak mbokk yi. Eh, suñu invité tey bokk na ci ki nga xamante ne mooy Ameth Ndir nekk membre comité directeur parti démocratique sénégalais Ameth Ndir maa ngi lay nuyu. maa ngi fii ak El Hadj Momad Samb nekk njiitu euh, RTAS secrétaire général RTAS. moom itam nekk euh, koo xamante ne miin ngeen ko ci suñ euh, plateau waaye itam ci langue politique Sénégal actuellement nag mën na conseil économique et social maa ngi lay nuyu El Hadji Momat Samb maa ngi lay fay euh, Ousmane Sène <laughs> jërëjëf gëj a gisee voilà yàgg na hmm. maa ngi fi itam ak Samba Talsar nekk membre réew mi Samba Talsar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay sëñ Ousmane di nuyu seen téléspectateur yëpp jërëjëf ñu ngi xarandi itam député Alioune Badara Diouf bokk ci APR moom itam bokk ci suñu invité tey ngir waxtaanee mbir moomu kon mbiru Karim Wade boobu nga xamante ne dañ ne depuis 2012 banque mondial setaloon na ko ci coow li nga xamante ne moo ko topp ci mbiru tracte de biens mal acquis ndax enquête bu Sénégal sakku woon ci ay juges français dañu ko daan saytu ba indi seen rapport loolu itam nag ci 2012 ba léegi ba tey jii kenn yëgu ko woon xamu ko. Euh, ci rapport bi ñu ne nag euh, ki nga xamante ne mooy président xamoon na ko ak ministre de la justice jébaloon nañ ko daal maanaam nguuru Sénégal waaye nag ci jamono yi ñu génne rek la nit ñi door a am ay firnde ne loolu feeñul nag ci dossier Karim Wade Ameth bi nga déggee mbir moomu euh, loo jàngat ci ni mu génnee yàgg ba tey ji ñu koy door yëg ak man yaakaar nga am war na ko mën a am poids ci li nga xam te moom la ñuy sàkku ci Karim Wade waaw damay ñaan rek d'abord sa ginnaaw bu ma sant yàlla borom bu màgg bi nuyu la sant la sant waa euh, kër gi yëpp commencé que si njiit mi Sidi euh, directeur Sidi Lamine nuyu Kamak euh, Momar Samba nuyu monsieur Tall nuyu itam ñi nuy seetaan yëpp alors bu loolu wéyee pour ñun waa PDS defe naa lu bees amu fi ndax lii xew tey ñu di ko waxtaanee mooy ni en juin 2012 le président de la République Macky Sall moom si boppam moom moo saisiroon banque mondiale ak office des nations unies yi nga xam ne ñoom ñooy lutter contre le crime et la et président de la république Macky Sall moom moo leen saisiroon bi mu leen saisiree defe naa ku nekk war na xalaat ni saisiru leen woon pour lu may ndam Karim Wade saisirul woon itam ñooñu noonu pour Karim Wade siggi walla pour mu setal ka daf ko saisiroon pour bëgg ko gën a dugal gën ko jaxase ak àdduna am rapport bu génne rapport boobu noonu bi mu génne comme moom moo saisiroon ñooñu ñu jox ko que moom kilifa gi mu nëbb ko li xew Ousmane defe naa simple na pour ñun waa PDS ñun dañu mas a wax ñu ni depuis toujours dañu waxoon ñu ni Karim Wade bi mu laa ñëw Sénégal en 2000 bi nga xamante ne président Ablaye Wade jël na réew mi Karim Wade dafa nekkoon directeur associé di liggéey ci benn banque bu nekk Angleterre banque bu ñuy wax UBS nekkoon fa directeur associé di gagner correctement plus que correctement sa di liggéey am teranga bi président Abdoulaye de laa nekk président loolu kenn mii mu ko ci dëkk loolu lu ñu mën a vérifier la lu ñu xam la Karim Wade nekkoon fa un conseil di conseiller gouvernement yi di liggéey ak banque yu mel ni banque de Beers di liggéey ak ñu mel ni Texaco ñu ay firme internationale yi nga xamante ne xam nañ leen Karim Wade banque boobu noonu dem na ba benn jamono bi mu laa ñibbisi moom nekk na fa directeur associé bon li ñun li ñu wax lu ñu lu am fu ñu ko teg la bii waa CREI yi waxee ni dañuy topp Karim Wade cent dix-sept milliards ñu fàttali ne ci biir cent dix-sept milliards yooyu amoon na ci quarante-sept milliards yu ñu doon waxe compte de Singapour yu Alburi Ndaw waxoon ñu bañ ko même ñoom si seen biir ñoom ñi ko doon topp defe naa dem nañ be compte boobu kenn waxatu ko boo jëlee cent dix sept milliards yi ñu doon topp Karim Wade nga génn ci quarante sept milliards defe naa li ci des du bari trop trop ci biir compte boobu itam mu amoon soixante huit milliards ya nga xamante ne de tout temps ñun waa PDS ak Karim Wade dañu wóoroon ni Karim moomu bi boo moo ko moom. boo génnee quarante huit milliards quarante milliards de Singapour nga génn soixante huit milliards yu Bibo dafa mel ni cour bi li mu doon toppe Karim quatre milliards moo ci desoon quatre milliards yooyu compte bi nekkoon Monaco bu un milliard trois cent millions sa la bokk këru Ablaye Wade yi yi mu amoon Point E sa la bokk ak ay oto ya nga xamante ne doon nañ ko topp Karim Wade li ma bëggoon ah, leeral mooy biir na Sénégal yépp ni bu fekkente ne alal ji ñu wax ne Bibo moo ko moom te banque mondiale génn benn rapport dëggal ne Bibo moom moom alal jooju tey te nun nu waxoon ko depuis njëlbeen bu ñu ko génne génnewaat 47 ah, ah, milliards u Singapour yi ma wax ma ne lii ñuy toppee Karim Wade rombul un milliard cent bu nu génnee compte bi nga xamante ne président Abdoulaye Wade moo ko moom si njëlbeen leeral naa ma ni Karim Wade avant muy ñëw Sénégal directeur associé la woon UBA ku nekk xam na ni quand même Karim war naa mën a justifier patrimoine bu toll si un milliard deux lii moo moo moo xew lii nag beesul si ñun ndax ñun ba mu sa doone ba léegi lii lañu mas di wax te tey defe naa ah, ah, lii bees nii lu ñëw dëggal kese ñun lu ñu daan wax jamono ju nekk la cour CEDEAO bi cour de la justice CEDEAO jaar na fi jox ñu dëgg ku nekk dégg na waa RADDHO li ñu daan wax si li xewoon ne Karim niñ ko bëgg àttee jaaduwul bon waa RADDHO itam joxoon nañ ñu dëgg bi état bi demee Paris tribunal de grand grande instance bu Paris pour saisir lii Karim Wade moom tribunal ba dafa wax ni mënuñu leen jox alalu Karim parce que amul corruption amul détournement de deniers defe naa léegi kon tey mu bëgg bari bu kenn fàtte itam ma ma jeexal foofu bu kenn fàtte ne le groupe de travail des Nations Unies itam waxoon na fi lu ni mel tey rapportu banque mondiale bi moo mujj mu mel ni biral na ni fépp ci àddina bi ñun ak ñeneen dafa nuru ne juste ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Macky ñoo nekkoon di def un règlement de compte bi ñu doon wax mais réduction de compte masta am parce que Karim Wade kenn masukaa jàpp ci benn inspection benn benn rapport bu IGE def wala benn cours bu mu def lii moo nekk. lii moo nekk avertir ci benn léegi El Hadj Momad Samba ku mel ni Karim Wade ñu àtte ko ak coow li mu fi juróon yëpp tëj ko ak coow li fi juróon yëpp génnee ko ak coow li muy wéy di jur ba tey ji ñu àggaat nag ci rapport banque mondiale bi génn ci jamono yi yow bi nga déggee rapport bi ak loolu yëpp boo ko dajalee ak coïncidence bi mu am ban njàngat nga def ci mbir mi. jërëjëf Ousmane kon ma nuyu mbokk yi. ak mbokki yi ñuy déglu di ñu seetaan di am mbégte dellu siwaat bi ñu ma doon tooñ di ma yow gëj nañ la gis Walfadjri euh, ma nekk euh, juróomi at yi juróom benn at yi nag ma ñàkkat ñëw fii du sama coobare mosuma leen oo yéen ma daan oo ah tey bi ngeen moowee ma ne ah am naa ci mbégte ah, xëy na am na lu taxoon loolu nag xëy na yéen ko xam di ngeen ma ko wax yow invité mm-hmm. <laughs> nga ba fi bés ba waa déggatoo ah ba moo du mën ñëw loolu aussi Sénégal yi war nañ ko xam euh, li ci tegu mooy waxtaanu tey bi man dama am lu ma jaaxal ci réew mi bi mu déggee mbir mi ma jàng sore bi xam ne ci la ki yor banque mondiale ñëwoon fi cim mm-hmm. bañ ko laajee ci wax ji mu ne loolu amul rapport banque mondial loolu banque mondial amul dara lu muy wax ci loolu ndax du banque mondial moo def rapport kooku benn groupe la boo xam ne mën na def étude am lu ko neex mu wax lii la wax kon waxtaan amatu fi xam nga li gën a yéeme ci mbir mi mooy ñu toog deux mille dix huit lu ñu àtte deux mille kooku def purgé moitié penam génn wàllu pen bi ba génn ñu ne mbir mi am na lu bees lu ñëwee ci encore loolu kenn su ko dégg fen lu yéeme la te li ci gën a doy waar mooy banque mondiale ak maxaamam lu mu mënti toll du juridiction te amul maxaama atte kenn naka la doomu Sénégal mën a bàyyi seen réew seen ëtti atte yi doomu Sénégal yu jàng fii am fi xam-xam di si liggéey ci loolu àtte mbir mi ci ay weeri weeri weer jël dogal ñu ne àtte boobu baaxul li tubaab di wax sax la chose jugée dañ ko war a respecter moo tax man dama gisul dara lu jar sax waxtaane ci loolu mais ma fàttali mu fàttali ci lu ndaw que Karim du gan ci ñun bi ma tegee ne banque mondiale bindul deful rapport lu ki mu wax lu leer teg ne lii suñu këru atte yi atte atte boo xam ne du tëju ci néeg atte waaye mu toog ay avocat toog jóge fu ne ku ne di wax ñuy bind biral lu ñu war a biral lu ñu mënul biral ñu ne amul dinaa ñëw tout suite ci atte bi atte bi li mu wax lu leer la ci ne tribunal bi dafa dogu ne Karim Wade ànd ay xaritam ak ñu bokkaloon di jàng ñooñu sax seen biir nangu ne ñoom ay prétendants la ñu woon maanaam dañu abaloon Karim Wade seeni tur pour def tey ay société loolu du waxu Momar Samb du waxu Banque mondiale du waxu Ousmane waxuñ te tribunal ba ñooñu ñoo àddu wax Karim mu ngi toog weddiwu ko loolu boo amee ba ñu dee constituer ay sociétés yoo xam ne ci ay secteurs névralgiques stratégique ci réew mi les plus rentables tribunal mooy wax de mhm. ci dogal bi mu jël ci économie Sénégal maanaam gis nga boo liiree rapport bi xaw ma ndax liir nga ko mais boo liiree rapport banaam arrêt bi de la CREI daf lay génneel man dama ci jàng lenn mooy Karim Wade demoon na bay moom Sénégal ci biir ak ci ci aéroport port ak yeneen sociétés yoo xam ne kenn xamul nu mu tool ma doolu ci ne ñoom dañu wax ne Karim Wade ji ñoon ko nañ ko corruption maanaam ger waaye bañ ko seetee amul benn preuve bu wane loolu kon ñoom dàq nañu ger bi mm. tribunal moo wax loolu de ñii mm. noo leen mën a tuumaal ne dañu am parparloo ci lii mais li ñu teg baaram mm. boo wax ñooñu ñoo jël li ñu leen wax mooy ñoom enrichissement illicite bi leen topp am na ci lu wér ñu teg seen baaraam li mbokk mi ndiir wax mënoo ñëw di wàññi looy wàññi amatoo wàññi tribunal moo ne ba ñu àttee mbir bi say say mbokk toog say xarit toog say avocat toog ñu ne mbir mi ñi la tëdde ñu dem cour suprême ñu ne dogal bi am na wér na jaar na yoon mm. et bu ñu demee ba condamné kooku ba topp ko léegi ci li ñu ko war a daan plus de cent trent huit milliards. dollu ci dix milliards yoo xam moom wax ñi mu ko bokkal yépp di juróom ñaari nit dañu war a bokk fay ko dix milliards pour état Sénégal muy ndàmpaay. loolu lu ci deeti wax. ma fàttali ne Karim du gan ci ñun. ñun yàgg nañu xeex ci li doon xew ci réew mi ci temps wu Ablaye Wade ak Karim Wade ci lan jëlal annoncé rek scandale bu ni mësa toll mësul am ci réew mi. budget de fonctionnement 4 milliards réfection King fat Palace 26 milliards loo xam ne 2 3 milliards lañ fa def des villa présidentielles ba léegi boo demee Ngor Wakam Yoff doo fa fekk villa yooyu 26 milliards am na benn film documentaire maa ngi leen koy recommander ku ko xamul nga seeti ku ñuy wax Christian Thiam def na ci film boo xam ne bu leer waxloo ci ñoom Imam Mbaye Niang député ak ñeneen ñoom Ndeye Fatou Touré député avocat ñeneen avocat yëpp ñu wax ñoom baarataal ak ñeneen film moom boo ko gisee ñu jaar ci biir réew mi ah ñu ñu dëgtal di nga xam dafa xew location jet privé yéen a ngi fàttali ñu noonu dañ ko doon abal ñu fekk ci ci budget bi dépense douze milliards location bateau ba ñuy def aussi fii ñetti fan huit milliards te loolu mooy li ñu mën a lim réflexion moom bureau sept cent cinquante millions loolu boo ko gisee da nga naa kii li mu jëf ak ah wax ji wóoroon na te ma fàttale lenn nañ daan rawale ay koppar démb wute naa nu ñuy rawale koppar léegi ndax xereñ gi am ci mbir mi ba ñuy def ay ay îles ay kii offshore yoo xam ne paradis fiscaux mbir mi buñ ko laxasee doo ko mën a lijjanti li feex amuloo mhm. lëkkale goo am ak banque yi nekk ci foofa wala yeneen réew ma fàttali ne loolu amoon na fi. kon kii bu ñëwee di wax euh, banque mondiale bind na lii waaye na banque mondiale bind. na FMI bind li am solo dégg nga bërka démb ci luñ doon wax werante. waa waa Monaco lu ñu wax. kon kañ fii luñ fiy weddi amatu fi. d'accord te kam. muy Front Siggi Sénégal muy Benno Siggi Sénégal muy M23 liñ doon wax mooy. lii ñu gis yëpp ci luubal na génn te am na yeneen yoo xam ne sax génnul. d'accord kon kañ mbir mi solotul di wax. dinañ ci dellu soit léegi. te du suñu askan wi la. d'accord El Hadj Momar Sam dinañ ci dellu soit léegi Alioune Badara Diouf ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sëñ waaw ñu ngi lay jaar yaa ngi door a ñëw. ok rafetlu sa teewaay. ci li ñu waxtaanee aju ci mbiru Karim Wade boobu ak rapport banque mondiale boobu. parce que tey jii ñu bëri dañu am njaqare ne daal comme ni ñu doon communiquer ci mbiru Karim Wade ci ay jamono. waaye mu mel nii bii nga xam ne am na ñu njortu ne mënoon na nekk poñ bu gën a indi ngañaay ci moom waaye ñu ngi koy door a yëg ak doxalin boobu ñu wax ni dañ ko làqoon yu mel noonu démarche boobu ak procédure ci dossier bu amee noonu solo ci réew mi nga ko jàngate euh, voilà merci beaucoup di la sant bu baax ci invitation bi euh, di nuyu sama naataango yi bi ñëw fekk na <clears throat> sëriñ bi di jeexal mm. après professeur Momar Samb jël je pense que man parta partage naa idem fu muy waxee problème banque mondiale li nga waxu rapport banque mondiale bi je pense que aujourd'hui euh, li xew ba xew mooy banque mondiale tontu na boppam te je pense que ne bu ñu continuer ñoom it danañ gën a wax danañ danañ danañ tegg parce que ñoom quand même ils ne vont pas se laisser mais li am solo mooy. mbirum Karim defe naa professeur Momar wax na ko léegi tribunal France je pense que ne récemment le vingt cinq janvier bii rek passé débouté na leen ci euh, affaire Monaco les comptes de Monaco muy euh, muy je pense euh, Karim Wade di Bivo di di Puy ak ñu mu mun a doon ñi àndoon ak moom di def loolu débouté na leen barke Dembo Ndiaye donc loolu pour dire pour pour rek conforter li nga xamante ne ni moom la Karim def ay ñaawteef si biir réew mi euh, agent judiciaire de l'État def na fi conférence de presse fële en France euh, li mu li mu wax je pense que ne c'était c'était tellement clair euh, que ne état di Sénégal parce que quand même ñun ñooñu lañ gën a mën a gëm seen wax parce que dañoo prêter serment xam nga politicien bi bu toogee fii xëy na pour defar. ki nga xamante ne moom mooy leader protéger ko xëy na mun na wax loo xamante ne ni du arranger du wax loo xamante ne da koy dugal mais agent judiciaire de l'État bi nga xamante ne dafa prêter serment waat ñu dënk ko ndomba tànk boobu je pense que ne bu demee ba tugal di fa wax li muy wax teg na ko si yoon te aussi dafa doon nit ku waat donc kooku mun nañu jàpp waxam parce que ba muy wax quand même nee na euh, l'État du Sénégal a commencé quand même recouvrer ces ces ces bien biens spoliés euh, notamment en France par Karim Wade loolu wax na ko boo wax li nga xamante ne ni euh, euh, ay milliards yu ñu jot a restitué dix-huit milliards beneen bi je pense que ne xamal nañu ne sept milliards ont été bloqués dans les comptes de Monaco par par Karim Wade ak ay appartements yu fa nekk loolu yëpp bu ñu ko l'agence judiciaire de l'État xamale daf dafay gën a conforter li nga xamante ne moom la ñuy wax beneen bi mooy le le groupe de travail de Nations Unies je pense que ne euh, sëñ bi laa dégg mu koy wax léegi waaw amen diir euh, boobu son vice-président ñëw na fi démentir donc euh, muy muy Roland Adjovi je pense que dem na RFI démentir na musul demander musuñu demander la libération immédiate de Karim ñoom kay li ñu doon demandé mooy li nga xamante ne moom moo doon déta détention préventive bi jàppoon nañ ne euh, délai bi dafa ëpp jeexal nañu délai bi ñuy ñu ñu ñuy wax ne loolu c'est de l'arbitraire foofu la ñu waxee mais ils n'ont jamais demandé quand la libération immédiate de de de Karim Wade moom ñëw na si jet privé bi deux milliards par an sans oublier li nga xamante ne moom mooy corniche bi nga xamante ne moom la ñuy tiitaroo onze kilomètres. d'autoroute qui nous a coûté presque trois cent soixante quinze milliards nga xool diggante euh, Ila tubaab yi nga xamante ne ça va nous coûter cent milliards. donc loolu mooy wax ji loolu mooy wax ji ne Karim Wade fooye na alalu réew mi donc loolu je pense que ne loo xamante ne jugé nañ ko depuis très longtemps et ñu condamné kooku ba tey jii euh, président Macky Sall si ay prérogatives mu jox ko. Euh, quand même li nga xamante ne moom mooy grâce ah, wax dëgg yàlla wax jooju war na mun a féete boor. sama Tall Sarr yéen ñi nga xam ne yéen ngi nekk ci opposition bi nekk ay équidistance ci parti yooyu nga xam ne ñoo seq mbir mi yow bi nga déggee mbir mi nga xam ne attewoon nañ ko mu am nu nu bindoo ci réew mi am coow lu mu fi jur ñu toog ba tey ñu génnewaat rapport banque mondial bi mu mel ni lu bees lu ñëw donte am ngir nee na dara beesul ci ñoom yow da loo gis am na lu ko waral mbir mi heure bi mu dox waxtu bi am na lu ko yëkkati ak wax ji ñu ciy wax ci booru pouvoir ak booru parti démocratique sénégalais yow ñu nekk ci diggante bi ban jàngat nga gis ne nit war na ko mën a am ci jamono yu ñu ko génn ak nu ñu ko génnee. waaw salaamaaleykum sëñ Ousmane. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di la ziar ziar bi gën a tedd ci ziar yi di nuyu aussi sa téléspectateur yi di nuyu aussi Alioune Badara euh, Diouf. honorable député di nuyu Ndiir di nuyu aussi professeur Samb di nuyu vraiment ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre télé bi di nuyu aussi kilifa gi muy Sidi Lamine Niass euh, bu loolu jàllee euh, di ñaan yàlla rek comme niñ ko dégloonte bii macha allah ñu waxtaan fi waxtaan woo xamante ni ñi ñuy seetaan c'est des sénégalais dinañ ci jëlee njariñ parce que loolu moo ñu fi tax di toog te vraiment aussi mbégte la toujours di ñëw si émission diine ak jamono. ñuy waxtaan di échanger ci loo xamante ni askan wi dina ci mën a jëlee njariñ parce que am na ñoo xamante ni dañuy wut lu leerlu te day yoon kon ñu leeralal leen yu baree bari euh, bu loolu jàllee euh, damay wax que ni ñun parti réew mi nous sommes très à l'aise di wax ci débat yu mel nii parce que ay la yéwén ni nga ko waxee nekkuñ ci biir ñu ngi ci biti waaye dafa am nu ñu gisee nu ñu war a mën a waxee joxe suñu point de vue yaakaar naa su ma jumulee sama président partie de passagement maa ngi koy nuyu le président Idrissa Seck ak tous les réewmistes di leen ziar ziar bi gën a tedd di wax rek nii le président Idrissa Seck l'avait dit waxoon na ci début les audits on le fait avec la main gauche et on continue à travailler avec la main droite ci mbir mii la ñu yëkkati CREI ñu ni bépp doomu aadama boo xam ni jàpp nañu ni nga amee sa alal njortu nañu ni am na lu ci lëndëm dañu lay woo nga leeral nan nga amee sa alal bi ñu yëkkatee cré yi yaakaar naa loolu bu ñu koy seet tey ci senegal ñi ñu war a woo bari nañ torop bu ñu waxalee dëgg ndax yàlla la bëgg yàlla dëgg la bëgg ndax dëgg mooy njëkk te mooy mujj ñun li ñu tax a dugg ci arène politique bi c' est pas pour faire de la politique politicienne dañ ci dugg pour def politique pure et dure te dañu ne du lu haram parce que lépp loo xamante dafay yokk ab gox di yokk am réew nga nekk ca di wax di def di nas di nocc pour lu ko yokk loolu xaraamul kon ñun politique boobu yàlla nañ ci yàlla tënk te bañ ñu waxloo ulla di defloo loo xam ni safaanu loolu la ñun ci loolu lañ ñu yare ci loolu la ñu gis ci président Idrissa Seck moo tax ñu continuer cheminer ak moom kon bu ñu nee tey dem nañu ba yëkkati cent trente huit milliards ca commencement ba ay la yéwén kon bu ñu demee ba deux mille dix huit mu desee at ñu war a dem élection nañu wax ñoom ñi nga xam ne jël nañu ay agence judiciaire de l' état ay commission rogatoire jël ay avion dugg ci ay hôtel def lu nekk amul fu ñu duggul amul fu ñu génnul bu ñu amee ay preuve nañ ko teg ci taabal ji bu fekkee Karim dafa def alal ji mu jël pour jëli ko indi ko ci réew mi loolu du dara ay sénégalais la ñuy waxal ñun ñu toog fii ci taabal ji nous ne sommes pas plus intelligents que les autres sénégalais yi ñuy seetaan yàlla dafa def ko ni ñu ngi toog fii di wax mais xam nañu ñoom problème bii nan la ak naka la. bu dee politique ko lal xam nañu bu fekkee du politique xam nañu man de ci sama jàngat c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal à ma connaissance que justice su Sénégal comme ni ko professeur waxe ay juge jël inculpé nit ba pare nit kooku tey penam tëddewu ko fii ma ngi ko tëdde ji Qatar ci yan condition lañ ko yóbboo Qatar ay lay yewet ñun sommes un parti boo xam ne mënuñ cee wax mais daal ñuul na am na lu ci lëndëm quoi qu'on dise y des choses qui n'ont pas été dites comme ni sa président di wax da nga ko ci ragal yow foofu foofu laay waxee c'est quelque mm. chose de nébuleux mm. maanaam leerul et que ñun sunu parti nu travaillons dans une maison de verre lu ñu gis mu leer dañuy wax ni lii la lii moo ci sunu xalaat c'est ce que nous a valu sortir de ce gouvernement mbout ma mot nous préférons aller mais bu ñuy wax dëgg bu ñuy des benn nit dañuy rester ak moom xam nga maa ngi dégg léegi muy wax moom di wax euh, monsieur Samb waaye di wax ci annonce yi lii la fi def laa la fi def dañu yeb Karim ce régime en place fait pire que Karim ce régime qui en place fait pire que Karim sur l'horreur il a tout ils ont débloqué 416 milliards je dis bien 416 milliards pour defar autoroute Ila Touba benn kilomètre du nekk mu ñuy dikk 3 milliards 714 millions lan mooy defar tali du basalte le basalte est au Sénégal le latérite est au Sénégal le ciment est au Sénégal il y a combien d'ingénieurs Pau et Chasseux au Sénégal pourquoi ñu ñuy facturer benn kilomètre de route 3 milliards 714 millions mel ni ñun dañu war a importer tali cela veut dire que tey bu ñu amul woon ces matière première là kon du ñu defar tali. kon lu ñuy dàq ba léegi bàyyiguñu. kooku kooku mm. kooku mooy. Mm. kooku kooku mooy benn bi. Mm. carte biométrique yi ñuy wax génne nañ ci cinquante deux milliards cinquante deux milliards pour confectionner moins de sept millions de cartes moment boobu Algérie Algérie mu ngi génne huit milliards pour confectionner dix huit million de cartes. même moment boobu la France bi nga xamante ne moom lañuy jël ñoom référence dix huit milliards la génne xam nga pour confectionner ñaata carte soixante million de carte kon scandale ci ñoom la fekk baax ñoom ñuy jël un bien public dégg nga ko barki démb suufu dakaar dem dikk defuñu appel d'offre defuñu dara ñu jël ko bu ko jaay seen partie à six cent millions war a tabax benn siège à un milliard nga dégg ay ministre de la république di cotiser des des dizaines et des cinq euh, des dizaines de millions pour des cotisations pour confectionner euh, kii boobu. kon daal yow mënatoo dégg. et que mon président. Mm -hmm. je dis bien et que mon président. le mm-hmm. président Idrissa Seck. Mm -hmm. s'il part de l'essentiel je dis bien s'il part de l'essentiel au lieu que ñu tontu ko sur l'essentiel duñ ko tontu sur l'essentiel liñ koy fayoo toujours mooy ay xas. ay saaga liñ leen di woo nañu góor góorlu faj coono askan wi fay bourse yi semi bii nga xam ne mu ngi tas dëkk bi hôpitaux yi ñoo feebar léegi ñëpp ñu ngi ñëpp ñoo xamante nañu am ay jafe-jafe mm-hmm. muy la santé mm-hmm. l'éducation la justice saafara yooyu moo gën ñu wax ay yoo xamante du ñu indil benn njariñ parce que au niveau de l'APR encore une fois de plus dañu am carence boo xamante ne mënuma la ko expliquer parce que une fois que sénégalais taxaw rek di wax loo xamante ni c'est les questions de l'heure il faudrait pas qu'on nous divertisse de l'essentiel l'essentiel l'essentiel à aujourd'hui du ay compte ay affaire Karim euh, Banque mondiale ay nangamaki ak i nangam mm. l'essentiel mooy ils ont échoué lamentablement d'accord bëgg nañu ils veulent bëgg nañu kenn werantewul ni bëgg nañu bëgg nañu mais dañoo mënul en fait d'accord ils ont montré leur preuve ils n'ont qu'à l'accepter amatul lu ñuy promettre sénégalais yi un an moo des élection mm. ils ont échoué nañ ko assumé dañ ko assumé d'accord sama taal Sarr dinañ ci dellu siwaat léegi Ameth Ndir euh, ci fan woowu la ñuy relance waat bi léegi parce que dañ waxoon ne traque de biens du mal acquis ñu ne demande sociale la ñu cité woon ci vingt cinq dignitaires de l'ancien régime ñu dem ba àgg tey jii nga xam ne ñu ngi waxaat waxu banque mondiale ak Karim Wade waaye balaa boobu am na ñu doon wax ne sax lu tax Karim Wade kese lu tax mbiru Karim Wade yëg si ba fii te déggaatuñ keneen gisaatuñ keneen boo ci yokkee lii nga xamante ne moom la banque mondiale indi yow lan nga mën a gis ne ndax dafa am ñu wax ne dañoo buggoon kale Karim Wade du nekk candidat ndax lii war naa mën a dem nag seetal Karim Wade d'après ni nga jàngatee mbir mi ak ni mu déroulé ba fii. Ah, xam nga ñun nii nu waxi démb nu waxi bërk démb mooy suñu waxu tey te àdduna bi yépp dañu fekk si si loolu dama bëggoon nga may ma quand ah, dafa wax sànq mu ni Karim bi mu toogee si tribunal bi bi ñu ko waxalee lu ko waxal miimul ma bëggoon ko ñaan ne que bu mu waxal Karim lu mu waxul Karim masta wax ni waaw damay bëggoon ñaan rek loolu ko bul bu nekkul ne yow yaa war a waxal Karim lu mu nangu ak lu mu bañ Karim si boppam wax na ni alal ji Bibo moom moomu ko ba Sénégal yëpp dégg ko moo wax wax na itam mu ni si biir ay waxam mu ni Karim demoon na bay bëgg moom Sénégal waaw loolu moom ngeen gëmloo woon nit ñi xam nga ba ñuy door dañu ne quatre mille milliards la Ablaye Wade ak waa këram sàcc hmm. da ngeen fàtte loolu xam nga lii ñu yobboo cour bi Karim Wade di ko atte malgré moom yi mu fi lim yëpp xam naa mënoon naa dem lay ci attekaay attekat bi joxaale ka yooyu xawma fi mu ne fu mu newoon moom bi ñuy atte benn Karim 117 milliards la amee waaye defe naa 117 milliards amee ka taxul nga bëgg moom Sénégal quand même 117 milliards wuute nag 300 milliards yi ñuy jiiñ Aliou Sall lool du dëgg. bon defe naa lii taxoon Karim bëggoon a moom dëkk bi comme ñoom ni ñu koy waxee réel que dox ci xelu nit ñi fatt sénégalais yi tiital leen d'accord wax fi ay wax ya nga xamante ne du waxu dëgg teguwul fenn yooyu la ñu commencé woon ne mille milliards la Abdoulaye sàcc ci dëkk bi le 12 novembre 2012 bii le procureur Aliou ndaw di def. sa conférence de presse dafa waxoon juróom ñaar téeméeri milliards la Karim Wade sàcc 794 milliards bi muy def conférence am bi mook Antoine Diome 694 plutôt milliards la waxoon ne moom la Karim jël ñoom ñooy wàcc wàcc ñëw ba 117 milliards ma ni 117 milliards yooyu bu ma jaaraatee fu ma jaaroon léegi ma ni 117 milliards yooyu noonu c'est le compte de Singapour bokk boo ko sa génnee quatre-vingt moo say des lu tax bi ñuy àtte génnewuñu ko sa te kenn su kaa tudd suñu koo tudd ñoom sa la soixante-huit milliards buy ba bokk parce que ñoom xam nañ ne ma ni Karim dafa doon liggéey nekk London nekk directeur associé UBA banque li ma wax li ma wax ñëpp xam nañ ko moom nee ñëpp xam nañ ko nekkuñu cour mënuñoo setal nit kon bu ngeen yëgsee ba fii ñu génnee rapport mënuñoo setal nit ñoom wax na sax mu ni li banque mondiale bind suñu yoon new si waaw noonu la ñu mas di doxe parce que dañuy jaay doole si dëkk bi ma fàttali Ousmane ni Serigne Touba mi xamante ne moom la Karim yaakaar bi ko tubaab yi la jàpp di ko déporté ba ñuy wootee bureau ba sa ndar tribunal la woote woon ne loi dafa dafa jalgati loi dafa def nangam tribunal bu teguwul fenn yàgg na si dëkk bii sénégalais yi xam nañ ko tribunalu caaxaan defe naa sénégalais yi xam nañ mooy lan tribunal bii fi génne sëñ Touba tribunal la woon ñu ne yoon la ñu ne lañuy la ñuy doxal sëriñ bi dafa jàdd yoon dafa def nangam dafa ñu teg ko si ay yoon ñun ba mos a doone ba léegi dañu mës a wax ni CREI du tribunal cour de règlement de compte la ñun defe naa on a constant depuis le début CREI du tribunal tribunalu caaxaan la ba nga xamante ne Macky Sall daf ko taxawal ju en jeudi 10 mai 2012 bi ñu defee conseil de ministres la Macky Sall réanimé kër yi pare si pour régler ay comptam ak ñi nga xamante ne ñoom la amaloon problème te ñi mu amaloon problème bariwul wax nga ko léegi Karim Wade kese la amaloon problème si dëkk bi moom képp lañ fi jàpp. parce que dañ ne traque bi dina continuer moom kenn lañ fi jàpp. Mm-hmm. defe naa tribunal ba nga xamante ne Abdoulaye Wade am fi juróom ñaari téeméeri ministre wala juróom benn téeméer d'accord IGE nekk fi xool gestion Karim Wade si OCI bi xool ni mu géré woon ay ministère am inspection général nekk fi xool xool Karim. amul kenn si si si si ñooñu noonu ku taxal Karim Wade corps de contrôle yi nekk si dëkk bi yépp amul kenn ku ko si taxal dara defe naa bu El Hadj Momar waxee ni Karim daa tax defe naa waxu caaxaan la wax ju woyof la mais ah non dama wax ma ni corps de contrôle yooyu fi nekk yépp audité nañu gestion Karim Wade bi mu nekkee ministre amul benn benn corps si corps yooyu bu génn rapport ne Karim def na nangam benn corps def gestion am takku ci benn koor délit bi mu def délit bi mu def mooy doon doomu Ablaye Wade doon doomu Ablaye Wade nu ni enrichissement illicite nu ko lekk ka moom kenn parce que li tax moom kenn la mooy moom la woon ak Balde ma fàttali ne président Doudou Wade waxoon na fii léegi mu am ñeenti at mu ni ku transigé wul si nit ñooñu noonu dinañ la jàpp tey ku nekk gis na ne ñoom li ñuy jéem a fexe ci négociation yi Baldé nga ànd ak ñoom te ba nuy woo Baldé ba nu woowee Karim ba mu la am ñaari weer dañ ko def ci kaso bi te ba tey balde demagul ci kaso d'accord bu nu ne yoon la ñuy doxal këru Ablaye Wade yii mu amoon bu ma joxee benn misaal këru Ablaye Wade yii mu amoon dañ ko nangu woon nu ne Karim moo ko moom dañ ko sàcc defe naa ñëpp wax nañ ko évaluer ko à plus de 525 millions tey président Macky moo jël dogal moom si boppam amee justice président Macky Sall moo jël dogal moom si boppam delloo kër yooyu te ñu ne ñu dëkk bi dafa am justice Macky Sall dafa uuteeg justice bu fekkonte ne dañu ne juge bi moo delloo Abdoulaye Wade ay këram ñu ñi mën a dégg ne ñii li ñuy wax lu tegu la mais ah Macky moom moo jël dogal delloo Ablaye ay kër niki Macky Sall jëlee dogal d' accord jugé lu Karim Wade exilé parce que dafa jàpp ne Karim Wade adversaire am la léegi nag ñun li ñuy wax mooy surtout à l'égard des Sénégalais mooy depuis bi ñu commencé ba léegi wax naa ne le jeudi 10 mai 2012 la Macky Sall réactivé dafa falu rek am ñetti weer ba tey léegi mandaam li si des ay weer yu néew la ba tey ñu ngi wax waxu Karim Wade boon ñëpp sénégalais yëpp mën nañ gis ne ñii li ñuy wax teguwul maintenant mhm. maintenant si waxu caaxaan ak jaay doole comme ni mu waxee léegi ne suñu yoon nekkul si li li banque mondiale wax suñu yoon nekkul si li cour de la CEDEAO wax suñu yoon nekkul si li keneen wax loolu defe naa kenn du ñu yoreem réew bu ñu bëggee jaay doole ñoom di def li leen neex te liñ fi waxoon lépp ñëpp gis ne lii waxu caaxaan la nit ñi war nañu jog ñi am baat si dëkk bi bañ coow suba am fi war nañ jog wax leen ne hey lépp li ngeen fi waxoon defe naa kuy wax waxu caaxaan si classe gu def vingt cinq élèves nga dikka ko nëbb buy def cinquante élèves nga di ko nëbb di di wane vingt cinq boobu mu doone ba léegi lépp lu ñu fi wax mu nekk waxi caaxaan defe naa kuy ku yoreem réew si yore nu caaxaan na nit ñi taxaw wax leen ne leen nii ngeen bëgg a def bu ni bu ngeen ni continuer da di tas dëkk bi parce que li ñuy def ñun duñu ko nangu. d'accord te wax nañ ko ba ñëpp dégg nañ ñu. amet ndiir dinañ ci dellu soit léegi El Hadj Momar Sam parce que ci li nga tudd di xam te ay ak annonce yi ak yu mel noonu yëpp dañ noonu ci gestion Karim Wade la waaye gestion boobu kenn topp ko ci kenn amul itam lenn loo koy reproché ci li nga xam noonu lay yoroon kopparam ci ministère am ak lim mu fi jot géré ci ay département ministériel ñu ne kon enrichissement illicite lañ ko jiiñ enrichissement illicite boobu lañ bànkaanoon ci biir. dem nañu itam ba mu indiwaat coow seen biir parce que ku mel ni Mimi Touré nee na deux cent cinquante quatre milliards recouvrer nañ ko yëf yi indi scandale waaw beneen bi ci tegu mooy kër yi nga xamante ne woon nañ ko xayma ko ay immeuble ba mu bëgg ci yooyu nga xam ne ñu waroon jaay yooyu nee nañ delawaat nañ ko ci suuf ci doxalin boobu aussi ak état de droit bi ñu sàkku ci yëf yi xam muy déggee ñun ñi di wax damay am ñu jaaxle eh, kii ñuy wax Ila eh, eh, Touba hmm, kii Samba Talsa loolu fu ñu fi indi loolu c'est-à-dire euh, waaw xam nga loolu mooy en réyalité lii ñu tax toog fii di waxtaan te nga wax ñu ko ñu ñëpp dégg ko taxu ñoo jóg bu fekkee ne bilan nga bëgg yow man nga woote fii waxtaan ñoo bilan sur dans tous les domaines rek lay ñaan loolu mais fekkee lii moo ñu fandi man du mu wax ci lii xam ne moom la wax parce que même booy oote set te Idriss Seck li mu seqoon Abdoulaye Wade quarante six milliards ba am protocole de Rebeuss ko fa jëlee moom mu ñëpp di ko dégg muy wax ci rajo bi la mu wax ca na mu def quarante six milliards yu bële animu kooku mën naa woote set jote li moo ju tax a jóg li moo ñu tax a jóg te histoire politique Sénégal ne fi te ñu dund ko nañu wax ci wax ji wax ji nag mooy maa ngi lay waxati encore ah. Mhm. oo ñu fii ñu def bilan comme dafa ne bilan. ñu def lu ne. boobu dinañ ci waaw ñu toog dans tous les domaines mhm. waaw parce que loolu moo solo parce que wax nii di sànni kii dara du leer. boobu yàggatul waaw incha te doon na wax ni sànq dafa nit ñi dañ si woon di njariñ. Mhm. ci lan ci li ñu sampani moom la ñu bëgg a waxtaane du ci leneen. kii li mu wax ndëg ma fàtte man dafa mel nii nit ñi du jàng lare dafa dax quarante six milliards yu Singapour yi. daf ko dàq ne bokku ci kenn warul tuumaal Karim ci loolu parce que amul preuve bu ko wane kon jànguñu ko sax parce que seetal nañ Karim ci wàllu woowu boo liiree arab yi dama ne li ma ci jàng man sama bopp lii ñu lim ci alal yoo xam ne teg nañ si baaraam de waxuma lu ay waxi neen Karim moomoon na Sénégal maa ngi ñaan de képp kuy wax ci mbir mi dama tasee benn sama benn xarit PDS la mu téye mi ci tali bi mu ne ma di nga wax ndeg di ngeen ma wax foo leen li ngeen def xale bi lan la ma ne ko ndax liir nga arrêt bi bi ko bi ko dugal bi ko atte mu ne liiru ko mu ne liir ko boo paree nga ooma ñu toog waxtaan ba léegi oowuma loolu mooy lan dañu war a quand même am cohérence réew mi mënoo ci ne am ay cours de justice ñu liggéey di ay sénégalais comme yow seen xam màcc ci loolu ñu dénk leen pour ñu atteel ñu nga leen di féetale ci kii dafa far fii kii dafa far fii loolu injure la maanaam saaga sax booy teg ci ñi xam ne ñoom ñooy àtt ci réew mi te ma fàttali li ma waxoon sànq du man maane lii la Karim jël dama ne atte bii xam ne moom la yoon atte te man dama yaakaar ne bu yoon attee ba pare dama la wax ne banque mondiale ak FMI ne ci yem de xaw ma ndax yaa may dégg dafa mel ni déggoo sama wax du man maay wax atte la chose jugée yéen foo leen nekkoon depuis 2012 ngeen doo ab rapport waa banque mondiale bi ne rapport amul du ci banque mondiale léegi loo bëgg a wax leneen yéen mën ngeen fi setal Karim ci jëf yi xam ne am na ci réew mi yow ab lébu nga gis nga sunu suufu maam yële Abdoulaye Wade daf ko tonni toj ko si ses jox ko say ñooñ soñ na ñooñ ñu jaay ko suuf sele wakaam titre foncier la woon dañ ko def toj ko quarante six milliards pour lan dafa ab ab monument loolu mu amoon na fi li fi amoon mu andi woon nit ñi ba ñu taxaw ci loolu dama wax ne mhm. man duma ma tuumaal Karim du ma tuumaal keneen dama ne li fi amoon ñu fàttaliku ko ñun ñu fàtte ko bañ ko fàtte benn ñu fàtte xeex bi ñu doon xeex ba am fukki doomu aadama ñaar yu ci gaañu ah leneen ah yeneen am na fi te ñoo ko dundoon doon yàggul. yow kon da ne. benn mhm. ñaar. Mhm. dama ne li fi am ñu koy waxaat fii waratul ñu ko waxaat ndax yoon. dafa tëral ne ba ñu waxtaanee mbiru Karim seet ko lijjanti ko yóbbu ay ci rogatoire yu nekk information bu ñëwee mu ne man yoon dàq naa ne Karim dañ ko dafa am ger lu ko topp ger amul gisuñu ay firnde 46 milliards Singapour yu ñu doon wax. mu ne man nanguwuma ko. Mhm. dem na ba sax lii xam ne moom lañu fekkoon ci yenn bagage yi jabaram mu ne delloo nanguma ko. li ma ko nangu mooy li ma teg sam baaraam mooy lii benn par benn. ci domaine bu ne société yi yu xam ne mara day taal yi yoo xam ne dañ ko démultiplier ah Ghana ko di fu ne moom moo ko wane yoon moo wane loolu ci liggéey bu ñu def avocat Karim mu ngi toog ñoom Karim mu ngi toog loolu laa wax d'accord léegi am na ñu loolu bu amee mhm. ba ñu ñaan cour suprême ne waaw yow waxal ci lii ñi ñu àtte mhm. ndax réew mi noonu lay doxee aussi mhm. mu ne loolu àtte bi jaar na yoon léegi ban wax moo fi amati dugal ci nag jinax bu jaar na fii ginaar bi jaar na fële loolu dootul ay wax. léegi yow yaa ngi wax nga sànq ne euh, boo dajalee li nga dajale ak ni nga gis mooy Karim moomoon na réew mi est que traque bi aussi dafa war a yem rek ci xañ Karim. ah moom réew mi parce que. déedéet boobu ba léegi déggatuñ ci. Hmm. affaire voilà loolu nag mu wax la loo xam ne moom la ñu mës a wax. Hmm. xam nga ñun affaire bi mu amee dañu def ay conférence publique Ndakaaru Pikine Géejawaay pour wax ñi ñu xam. ñu topp li ñu wax seet arab yi fu ñu ko tëj ñu jàng ko xam ko xam li ne ci biir lu tax ñun suñu parti RTS ak ñi ñu àndal dañu gëm ne lu mel noonu mën nañu ànd na guleet ci mu toll noonu ci Afrique doomu chef d'état woon nga nangu ko topp ba mu génne loolu ba feeñal loola ma fàttali na njëli rëndal alalu réew dootul na mu daan amee naneen lay amee te pexe yooyu moo tax mbir mi gën a lëj gën a jafe ba moo tax lii am am ñi jàpp ne ñi ne mhm. bu fekkee ne dañ ne lim nañ ñaata nit mhm, ñu ne jàpp nañu ku jigéen jàpp nañu ku góor waaye topp ñu leen wala ku jigéen topp nañ ko am na fu mu yegg ak ñeneen ñu ñu xamal yooyu a ah, lii am ci biir mooy ñoo xam ne dañuy transiger wala ñoo xam ne dañuy waxtaan loolu yëpp mu ngi ci hmm. duma mën nag wax lu ma xamul mooy le principe waruñu bàyyi kenn ci ñi xam ne yoon war na laal ci seen mbir hmm. nañu gëstu ñépp ñoo xam ne ne am na fu ñu laal ñu seet leen hmm. moo xam parti bi la ñu bokk moo xam APR la ñu bokk moo xam euh, PDS la ñu bokk loolu solo bi mooy ñun réew mi nañ ko yor ci yorin wu rafet te it li tax ñu am ci ngëm ak yaakaar mooy teg ay pexe ay euh, jumtuwaay yoo xam ne dina mën a topp ñi fi ne te ma wax loolu nag li tax ma koy wax yëkkat sama baat ca kaw même le procureur bii tey mm-hmm. Bassirou Gueye ameel nañu tontu ak leeral ci li mu waxoon ne kii ñu topp tey ba di ko atte am na ñeneen ñu ñu topp ñu ngi seen mbir mu leer ñu loolu yëpp mbiru code bi ñu leeral ko ba mu leer leneen lu mu mën doon ñu leeral ko mhm. foofu la ñu taaw du man ne nag li feex loolu leerul mhm. du ñu leeral li fi am mhm, te nga li am ci Karim Wade c'est symbolique bii jàpp nga ne daal leer na moom ah bu man du man maa ko leeral <laughs> atte attekaay bii xam ne moo ko doon seet setantal ko setal ko ci lii setal ko ci lii la jàpp ko ci lee moo ko leeral te ñu ne nañ topp lépp nag bu mu mat sëkk fa mu war a yegg mu yegg fa de manière conséquente foofu la ñu taaw amuñu ci ndëkk xaar ma yàlla ku ci nekk rek El Hadj Momad Samb euh, Alioune Badara Diouf euh, le rab parce que ci fan woowu nag la ñuy taxawaat parce que dañ ne euh, vraiment traque de biens mal acquis warta bàyyi kenn muy doomu chef d'état ak keneen ku doon liggéey ak moom te yor lu toll noonu wala ñu njortee la lu toll noonu raw nga mën a taxaw ci kanamu yoon beneen bay itam mooy El Hadj Momad Samb wax nañ am na ñu ñoo xam dañoo def transi transiger ci par exemple am na ñu wax am na médiation pénale tuddoon nañ ko fi benn am na ñu versé bu yàggul Aminata Touré ancien premier ministre ne deux cent cinquante quatre milliards yoo xamante ne recouvrer nañ ko ci mbir moomu te loolu au lieu mu jur lu leeral mais dafa juraat coow lu mel noonu boo ci yokkee yëfu euh, banque mondiale bi ak rapport am bi aussi doxalin bi créé di doxal ci mbiru traque de biens mal acquis naka ngeen di mën a def ba mu fees bëtt nit ñi aussi. Euh, merci man je pense que ne bu ñu bu ñu dellusee bu ñu delloosee affaire bi si contexte mbiru Karim Wade dafa doonoon une demande sociale sénégalais yépp a ko doon laaj jamono yooyu c'est sûr et certain que ne su ko président Macky Sall enclenché wu loon daan na am ay problème parce que Sénégal yépp dañu taxawoon pour que Karim leeral donc loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci moo tax sama suñu xarit bi moo koy wax ne ko. Samba Tall Sarr Samba Tall Sarr a commencé par le président Idrissa Seck à l'époque da ko doon demandé tout le monde tey jii ñii taxaw di jéem a protéger Karim Wade <laughs> ñoom ñoo ko doon demandé moo tax mbir mi dafa doy waar. Euh, je pense que ne loo xamante ne ni Karim jugé nañ ko tëj ko euh, mu war a purger peine am lu ca toog président Macky Sall si ay prérogative am mu defal ko grâce mais loolu lan mooy deal bi. foofu am na dil mais amul dil loolu constitution bi moo ko may président Macky Sall mu mu mu gracier ku ku ku mu sopp donc foofu amul dil donc dil kay buy am gis nañ fi la protocole de Rebeuss le deal de de minuit joxe lii ma bàyyi la su ma génnee danaa financer sa campagne loolu président moo ko fi def mu ne fàng kenn du ko jiix Sénégal yëpp gis ko. muy affaire quarante cinq milliards yi nga xamante ne moo nekkoon sur les chantiers de Thiès donc ngir yàlla dil moom sur l' affaire Karim wàdd bu ko kenn wax que dañ ko dañ ko mu ngay mi ngay purgé penam en Qatar loolu moom je pense que ne tey jii ñoom rek ñoo ñu si mën a leeral ñoom parce que ñun liñ si am Karim wàdd moo si mun a wax dara ak ñoom ñii ànd ak moom parce que tey chaque jour ñu ne ñu Karim day ñëw tey bu subaa ñu ne ñu ñëwatul gannaaw suba ñu ne ñu dina ñëw ainsi de suite ñun xamuñu. ñoom ñoo si mën a leeral. mais mais mais yëpp laaj aussi est-ce que jotu doon bu ngeen koy yóbbu ngeen leeral Sénégal yi nii la demee. déedéet déedéet ñun ñun ñun luñ koy leerale ñun libéré nañ ko. boo ko libéré président Macky Sall may na ko grâce waay way Karim bu ko neexee mu mu mu dem Malaisie. bu ko neexee mu dem Koweït. wala mu toog e. bu ko neexee mu toog Poya e. e. ñun lu suñu problème bi waaw bu fekkee dem na Qatar waay waay nañu laaj Karim wàdd lan moo la lan moo tax yow nga dem Qatar bu boobaa moom bu si waxee bu si àddoo nit ñi dinañ xam mais ñun ñii nga xamante ne xamuñ si dara président Macky Sall lu mu si xam moom gracier rek la si am bàyyi ko mu dem pour des raisons humanitaires nag. Euh, parce que déglu nañu quand même euh, les les les kii euh, kii responsable Qatar bi fi ñoom pour des raisons humanitaires ñoom ils ont voté ñoom ñu traité Karim Wade ñoom ñoo xam xëy na dañ koy dimbalee wala ñoo xam la ñu seq ak moom c'est pas notre problème waaw beneen bi je pense que ne Karim taq na wala Karim taqul way way loolu mënatul doon débat koo xamoon ne ne eh, dañ dañ dañ la taq nga ba ñu tëj la nga coupable coupable ba ñu mën di la gracier kon yow taq nga kenn du ko werante taq nga man man vraiment dootuma dellu siwaat si ay euh, Karim jël na lii jël na lee jël na non parce que ça n'a pas de sens ñoom ñoom ñoom taq na ñoom def nañu recours vraiment débouté nañ leen ne nañ leen lii ngeen di wax tegu leen ko fenn Karim taq na taq na c'est fini on a jugé euh, on l'a condamné mais je pense que ne loolu aussi euh, dañ dañ dañ dañ si war a ces ces ces avocats dañ si war a def croix. loo yaakaar ne mu indiwaat wax ji kon ci waxu banque mu. non xam nga xam nga politique la ñuy def. Hmm. xam nga dañu nekk si ay euh, euh, année pré préélectorale tey jii Samba Tall mi ngi mi ngi sang xam nga. Hmm. ragg leader am bu ko defar ba mu rafet mu jaay ko Sénégalais yi mais sa sera très difficile. Hmm. très très difficile parce que koo xamante dañ fi def njombe bu ne n'est-ce pas ñu taqal la ngay def ay deal ay protocole de Rebeuss ay di profité si ay situation situation Khalifa Sall situation Karim Wade di bëgg a doon euh, candidat de l'opposition laaj na laaj na say ñooñ euh, protéger la defar la ba nga rafet ñu mën laa jaay loolu nag laa ne du yomb dans la mesure où dafa taqoon mënul mënul mel ni mënul mel ni président Macky Sall parce que jamono yom koy bëgg ya bëgg réew mi euh, Ablaye Wade président Ablaye Wade jéem na ko taqal waaye bu taqoon lu toll ni ar tarfatal ay ni kon tey jii mi ngi kaso mais dafa setoon wecc blanc comme neige ñu présenté ko Sénégalais yi ñu ñu votel ko euh, pour les kii pour les xam nga xam nga track bi euh, c'était destiné à vingt cinq euh, personnes dignitaires de l'ancien régime ñu ne ñu jël si Karim Wade rek ñeneen ñi si des c'est parce que dañu daw si si mouvance bi moo tax ñu bàyyi leen mais loolu ay waxu caaxal la. Omar Omar Sarr dafa daaw si mouvance bi te pourtant ba léegi euh, euh, c'est resté en stand-by euh, Samuel Sarr ainsi de suite mun nañu ma lim Madi Madické Niang mun nañu lim de dignitaires yoo xamante ne daw si wuñu si biir régime mais balaa ñoo dee rek ñu ne Ousmane Ngom dafa daw si ñu bàyyi ko Awa Kourdi Ndiaye dafa daw si ñu bàyyi ko ainsi de suite loolu laa ne du wax c'est-à-dire que ñi nga xamante ne transigé nañu am na. yàlla am na ñoo xamante ne ñi ñi ñi ñi ngi waxtaan. parce que Mimi loolu la doon bañ beneen bi. non ñi ngi fay mais mais nag xam nga loolu aussi il faut ñu respecter quand mm. la dignité humaine. Mm. respecter quand même présomption d'innocence su nit ki du dëgg. Mm. Euh, koo xamante ne jugé guñ ko wax dëgg yàlla munoo taxaw si kii bi naan diw kat euh, transition na joxe na nangam diw joxe na nangam non loolu je pense que du yëfu gor. te El Hadj Momar Samb na lépp. képp ku ci laal. nañ ko fexe woo procureur. waxoon na ne ñu nga ca mais yëf yi pause bi pause bi leen ñëpp mënatul comprendre dafa yàgg. nee nañ non non c' est à dire que. c' ki nga xamante ne moom moo yëlif yëf yi nee na ñëpp ñi nga xamante ne limoon nañ leen ci danañ leen saytu traque bi dana continuer ba ba ba fu muy yem. donc par rapport à ça amul problème xëy na yàkkamti rek moo fi ne. te alors que jarul jarul ju yàkkamte. d' je pense que li li li li li mu Touré waxoon. ma man dama yaakaaroon ne débat boobu dépassé nañu ko dans la mesure où ki nga xamante ne mooy ndeyu mbill ji génn na euh, le porte-parole euh, du gouvernement génn na wax ne euh, yëf yi mi ngi toll woon ci cent cinquante deux milliards n'est-ce pas te cent cinquante deux yooyu man doonoon naa député ci douzième législature bi xam naa fu mu dugg loi loi de finances rectificative yu ñu ko dugal de 2012 à 2015 ak loi de finance euh, initiale bañ ko dugal en deux mille quinze. bële deux mille douze non non cent cinquante deux milliards yi la wax kooku man. Mm-hmm. mun mun naa la wax bu si nekk. kañ kañ fan lañ ko dugal. Mm-hmm. kooku moom par rapport à ça euh, je pense que ne luñ si am benn jafe-jafe. que boobu dama la ne kon kay information parce que boobu dama la ne cent cent cinquante deux milliards yi. Mm-hmm. li leer ba leer mooy en deux mille douze deuxième loi de finance rectificative bu ñu voté Euh, dugal nañ si quarante cinq milliards n'est-ce pas deuxième finance deuxième loi de finances rectificative en 2014 euh, dugal nañu lu toll si 35 milliards si si loi de finances rectificative boobu 3 3 kilos 3 3 3 points lañ lañ lañ si dugal du dëgg bii 25 bi bii 11 milliards ainsi de suite ma maa ngi fàtte chiffres yi euh, en 2015 loi de finance initiale. dugal nañ fa trente cinq milliards donc loolu moo composé cent cinquante deux milliards de deux à deux mille loolu justifié nañ ko mu leer nañ donc loolu débat la rek boo xamante ne nii pour alimenter euh, li nga xamante ne mooy coow coow li lëmbe Sénégal rek. d'accord mais par rapport à ça amul benn jafe-jafe. na lu ci leer dinañ ci dellu soit léegi sama tal Sarr parce que ci fan woowu euh, àgg nañ foo xam ne nee na sax sa leader bokk na ci ñu doon laaj yëf ñu leeral ko ci leeral boobu itam xaalis boobu ci la génnoon. ba indiwaat fi coow lu ton nii tey nag ñu toog ba jamono itam ñu toog ci année préélectorale comme ni mu waxee ñu yëkkati mbir mu mel nii mu ne nag bokk nga ci ñi nga xamante ne comme ñeneen yi dañu bëgg a raxas seen leader ñu nekk candidat à la présidentielle Karim Wade mii ngay gis mooy candidat parti démocratique sénégalee buñ toogee ba heure bi itam ñu yëkkati wax ji. yow da nga bokk ci ñi yaakaar ne war na mën a doon lu tax ni ñu doon waxee démb ne dañ ko bëgg a recalé ci année 2019 mu doon leneen loo xam ne day décalé pour mu bokk ak yu mel noonu wala yow noo jàngate mbir mi parce que nee na deal moom bëggatul kenn ku ko ku koy wax ci mbir mi moom Alioune Badara Diouf. waaw sëñ Ousmane jërëjëf mooy li ma wax sànq rek nañu xam ni sénégalais yi ñuy seetaan ëpp ñu leen xel maanaam gënuñu leen a muus te làmme wu ñorul mënta lekk moroomu làmmiñam man avec tout le respect que professeur Samb moo fi tudd ay jet privé moom moo fi tudd ay corniche tàmbali def ay bilan ci Karim Wade non non da nga da nga wax corniche waaw waaw moom moo corniche bi waaw tàmbale di di lim waaw waaw non non mm-hmm. ay scandale ngay lim waaw non ah. ay scandale ngeen tàmbalee di lim mm-hmm. nga lim ay scandale ma lim ay scandale nit ñi ñu ngi def pire que ça et c'est la triste réalité mm-hmm. je veux dire euh, euh, monsieur Samb s'il vous kooku parenthèse la woon ah. beneen bi dañu am problème dañu am ñoom problème seen problème c'est Idrissa Seck gis nga problème Idrissa Seck avec tout le respect que je vous dois yow yaa ni ay sénégalais ñoo fi jànge ñoo fi nekk ñoo fi jugé c'est des sénégalais qui ont jugé a Seck blanchir ko sur toute la ligne aucune loi n'est rétroactive c'est la loi sénégalaise ki a jugé Idrissa sec qui l'a blanchi comme neige on ne peut pas revenir sur ça kon tey entre guillemets rek la woon yàpp sénégalais yi mooy à chaque instant ñu indiwaat le protocole de Rebeuss le pro monsieur Samb s'il vous plaît s'il donc le protocole de Rebeuss indi nañ ko fi ba sa Seck demande jury d'honneur lan moo tegaat mbir mi ci suuf ñoom ñoom nañ ko teg ci suuf Macky Sall président de la République étant premier ministre moom moo dem King Fahd Palace ambassadeur yi fi nekk yépp ñu dajale leen foofu ñu wax ci problème u Idrissa Seck Macky Sall bu amoon benn preuve de culpabilité pour incrimer Idrissa Seck il va la faire ko kenn weranteetu ko beneen bi Idrissa Seck il aspire à diriger un pays il aspire à diriger un pays am na wax yoo xamante ni du ci tontu il arrive des fois que les aigles volent plus bas que les poules mais jamais na poules n'atteindront la hauteur des aigles am na yoo xam ne du leen tontu am na ñoo xam mënuñoo jiite sax ab quartier yooyu Idrissa Seck ne va pas s'attarder sur saa ci kaw Karim Wade bi yow léegi. li nga wax li nga wax li tax ma ma brosser problème mu Idrissa sekk di ci wax. parce que dañ cee wax moo tax ma ciy tontu. dañoo laal dossier merci beaucoup. voilà c'est bon non non moo tax ma ciy tontu. voilà kooku mooy benn. deuxièmement mhm. pour problème pour problème euh, bi nga wax ni Idrissa doon a wax nii doon wax naa. Mhm. il a été toujours constant. boo xam barki démb ak tey ak suba benn la il a toujours demandé une justice équitable loolu la prôné loolu lay xeex ci loolu la nekk démb ci la nekk tey te ci lay nekk ba ëllëg. même bu jëlee réew mi ci loolu lay nekk. traque global daal la waxoon. ba mu waxee nit lépp loo xamante doomu aadama yor na ko muy bien public daf ko war a leeral loolu ci la ñu nekk démb laa wax. ci la nekk tey te ci lay nekk ëllëg. la mu waxoon rek. Mhm. sa préoccupation fondamentale c'est de servir c'est de produire la maximum de bienfaits dans le temps qui lui est imparti. par son Seigneur dont il ignore. dooy ignore la durée kon kooku kooku am na lu mu bëgg réewam ki taxaw naan damaa bëgg a jël réew mi ngeen ñaanal ma jël bu fekkee man maay jariñ réew bu fekkee mën naa jariñ réew mi su ma mënta jariñ réew mi kooku il n'est pas affamé de pouvoir d'accord kooku mooy damay ñëw damay ñëw rek damay damay ñëw xam nga sànq nee na nee na ci Karim ci Karim ma ñëw ci Karim waaw nee na Karim mhm. euh, mu ngi doo gis doomu président bu am yenn pouvoir yi ak yenn alal yi. Euh, euh, bu ñu poursuivre pour mu leeral alal. merci merci beaucoup. Hmm. Aliou Sall qu'est-ce qu'il est le frère du président de la République. tous les conventions à aujourd'hui moom moo ko wax sànq moo ni suuf wokaam yépp moom moo ni suufu wakaam yépp def nañ ko nii def nañ ko naa def nañ ko nii def nañ ko naa hmm. kon xanaa sa gouvernement en place hmm. ils ont vendu. tous nos ressources minières pétrolières et gazières xanaa kon c'est tic-tac ñii suuf la ñu jaay ñii jaay ressource kon naturelle. <laughs> Ousmane def ci waxtaan waay. non non man li mu wax rek ci laa tontu. j'ai pris des points s'il vous plaît. monsieur Samb professeur avec tout les respect que je vous dois vous avez pris des points ni Abdoulaye Wade ak njabootam jaay nañu ay suuf ñun ci li ñu xam mu leer ñu ñun mu leer ñu ñun. kon gouvernement bi fi nekk sur les contrats miniers pétrolier et gaziers kon dañoo jaay sunu sous beneen bi moom moo wax sànq lu mu wax rek ci loolu laay jàpp point pour indi ci leeral <laughs> merci ci lu mu wax laa wax yow ci loo wax en tant que professeur ci loo wax rek ci loolu laay jàpp pour indi leeral dafa wax sànq ci offshore yi bi mu waxee ci offshore yi IGE 2015 2015 je dis bien 2015 rapport bi mu ci def 2015 ci la wax ni Frank Timis ak ay ñooñam mooy ñoom Aliou Sall ak ñoom consort googu waruñoo laal suñu pétrole nii de près nii de loin te tey ñu ngi muyee ñu ngi muyee ba ci biir tous nos droits de préemption n'ont pas été respectés bi ñuy jël ñoom Aliou Sall et consort ay ñoom Frank Timis di leen bëgg a jox suñu blog yi lan la woon pour ñu def exploration exploitation fan lañu mujjee jaay ay bloc et c'est domage bu ñuy toog kon tey jii bu ñuy toog kon tey jii di ñu wax di ñu wax ay am na beneen sénégalais boo xam ne moo def lii moo def laa ki nga xamante dafay engagé jël ay contrat yoo xam ne dañ koy signé nga xam ne day engagé des générations et des générations kooku il n'a rien fait Mm-hmm. pour ce pays. d'accord léegi c'est très dommage. ok léegi waaw Ahmed. ci kaw Karim parce que. ci loolu euh, ne ci leneen la ñu ne ci pétrole bi. ah li ba léegi ci li mu wax ci point yi may wax. ci point yi may wax bondir. parce que moom dafa def comparaison peut-être. merci waaw léegi. non non parce que à chaque instant il veut mouiller. il veut il toujours. Euh, benn benn benn benn affaire lay jël sànni ko ci jardin Karim wala ci jardin régime bi nga xam moom ñoo fi nekk te ñooñu loolu tax ñu jëlee leen fi mais ñoom ci seen bopp moom xam nga il n'est pas de la paire mais ñoom dañoo bokk ci muraake bi ñoom ah. comme ñoom dañoo bokk ci nga xam ni dañoo bokk ci muraake bi moo tax xola ah, léegi moo tax moo tax xola ma koy xamal ni ñoom ci seen bopp ils font pire mm. ils font pire que la mouvance presse euh, euh, Euh, passé. léegi léegi yow parce que li ma la doon laaj mooy par exemple justice boobu nga wax ne moom moo àtte président Idrissa Seck. Mhm. ñoo ko blanchir. Mhm. boobu ñoom ñoo àtte Karim Wade. Karim ñoo ko condamné. Mhm. même justice boobu yow nag nga gisee léegi condamnation Karim Wade parce que ñi nee nañ loolu leeral na. yëpp yëpp waaye d'accord wala bi yoon dañoo doxali noo xamante ne neexu la wala leeru la. xam nga ci commencement bi dama ne la. man dafa am lu ma ëlëm. te li ma ëlëm maanaam li ma jaaxal. moo jaaxal beaucoup de sénégalais. c'est quoi mooy Comment fii fait-il qu'un Karim Wad, fils de l'ancien président Abdoulaye Wad, procureur taxaw ñu def liste vingt quatre xaw ma vingt cinq personnes tey jii ñu jàpp kooku incriminé ko ni moom la mu yëg ko ba fii tey jii kooku war a génn ñu ne defal nañ ko grâce grâce bi doo fanaan Dakar du fanaanu dakaar demul Touba no man daf ma impressionné ak beaucoup de millions de Sénégalais nga xëy un bon jour. ñu ni la génn na jël na vol bi dem na te mënul génn Qatar gee mu nekk Qatar gee mu nekk mënu faa génn ñoom boo leen laajee ñoom boo leen laajee ñu ni ñoom xam nañu ah ñoom boo leen laaj ñu ni ñoom xam nañu dama ne bu fekkee ni loolu mooy clarté war nañu xoolaat lan mooy clarté bu ñuy xool ni lan moo nibi bu fekkee ni loolu c'est pas une du loo xam ne seen nibi la kon xaw ma lan mooy une chose nébuleuse. d'accord franchement parce que xaar waaw léegi noté ko noté ko amit ñëw parce que amit bugg nañ vraiment côté boobu aussi yéen ñun ngeen tànn ñuy peut-être parce que Alioune Badara Diouf nee na ku bugg a xam li yóbbu euh, Qatar euh, kii de Karim Wade laaj ko Karim Wade wala nga laaj ko ñu jege Karim Wade te loolu hmm. parce que dafa am ñoo xam ne dañ ne ñii dañoo bugg a wax ne ci coobareem la dem moo tànn foofu ñeneen ñi dañ ko exilé te yëf yi ba léegi mënagul léegi man nga man man nga jëkk wax sax nga ni hmm. ah, oui président Idrissa Seck yoonu dëkk bi moo ko atte hmm. waaye du benn ak Karim Wade Karim Wade yoon attew ka defe naa Sénégal yëpp war nañ ñu dégg ñun dañu mas a wax ñu ne CREI du yoon juridiction bu spéciale daan d'accordu leen ci la CREI n'est pas la loi pour nous au PDS xam nga professeur ñun fi am fi man personnellement ah, li nga wax sànq ah, am na si ya nga xamante ne ah, ka mag ñun si yooyu lañ leen la xaar comme baa waxeew ni buñ bàyyi kenn war a dëgg xam naa mm, naw bii leen nit ñi naw ah respecte ka mel ni man respect bii nu leen jox il faut que yéen bi si bàyyam xel si loolu itam te ni nga wax noonu defe naa man siggil na ma te te te gën a tax itam ma gën a gën a gën a gën a jàpp li nga wax waaye waaye buggoon naa rek waxaat dara parce que wóor na ma ne boo boo boo waxee nga ni ah, Karim Wade ah, corruption topp ko dëggu wér nga wax te loolu laa doon xaaritam si yow nga wax loolu boo waxee nga ni Karim Wade bu nu ko toppee noonu la ñu war a toppee ñaar fukki nit ak juróom yi des yépp dëggu wér nga wax ndax tey li fi xew mooy réglement de compte moo fi am bennam Karim Wade la ñu singali parce que président Macky Sall xool na Karim Wade gis na ne kii nii mu nar a demee nii bu boolee moom ñii ko topp ak ñii nekk biir PDS il est clair que Karim dina am lu ëpp 30 pour cent loolu wóor na moom xam nag ko. kon recaler un candidat daal moo moo jur armada bu toll. si doole jaay doole def lu ko neex jaay nit ñi doole wan ñu ne moom mooy def li ko neex loolu la fi mag Sall dëkke bi mu fi faloo ba léegi loolu lay def. Mm. tëj nit ñi jaay doole dóor leen gaze leen wane na man li ma neex laay def un point sept un point un à la ligne mm. yooyu kese la fi mag Sall bi mu faloo 2012 ba léegi loolu la fi def. Mm-hmm. maintenant ñun itam dañu wax ñun ni ah, dëkk quand boo ko yoree moom mooy président waaye nag moomunu moomunu dañu fi am ay ay droit am fi ay sañ-sañ lii le frère wax sànq mu ni ah, ah, bi ñuy jàpp Karim de demande sociale la woon mhm. defe naa tey war naa nekk demande sociale njub si dëkk bi mhm. d'accord depuis toujours professeur ñun dañu mas a wax ñu ni alal ji nga xamante ne moom la ñuy toppee Karim Wade 68 milliards yi man foofu rek laa lay interpellé waat boo boo kiwee boo xoolee nga xoolaat loolu 68 milliards yi ñun dañu wax nu ni Karim moomu ko bii boo moo ko masa moom Karim masa wax toujours ni moomu ma alal jooju noonu bii Bibo moo ko masa moo ko moom. rapport banque mondiale bi. banque mondiale hmm. banque mondiale bi ma ni. Hmm. nun sollicité nu banque mondiale encore une fois ma fàttali loolu ma ni. état du Sénégal moo waxoon ni ñu mën a. mai 2012 le président de la république lui-même. Mm-hmm. lui-même moo saisir la banque mondiale pour un rapport. PDS saisiru ko ñii ànd ak Karim kenn saisiru ko Macky Sall moo ko saisir te defu ko woon pour dimbali Karim Wade mm-hmm. wala pour seetal ko pour duggal ko bon ñooñu lu ñu mën a mën di wax. lu ñu mën a wax. kon jàpp na bu waxoon lu safaanu kon demee na ne. ah bon kenn waxatu ko. maintenant comme la mu wax daf dafay dëggal ñun li ñu wax dëggal li Sénégalais yëpp gëm ne Karim deful. parce que ma fàttali léegi ma ni Karim bi mu defee DSM ba pare France Société Générale de Banque Suisse. la defee stage am commencé faa liggéey. Karim daa yàgg liggéey donc wóor na Sénégalais yëpp ni Karim mën naa justifier patrimoine nu un milliard et quelque. kon kon li ñu làq dossier bi kon yow loolu dafa nekk loo xam ne arrangé wul situation parce que dañu dañu bëgg a naxal naxal xel yi. Mm. tiital leen ne leen Karim a ngi moom Sénégal comme ni ñu ko waxee sànq. du continuer du ko si 4000 milliards. Mm. waaye ne Karim a ngi moom Sénégal si 1 milliard 200 man ta nekk nit ñi duñu la déglu. Mm. donc foog nga réel que indi lu rëy ne daf dañu sàcc 4000 milliards. Aliou Ndao woote ne dañu sàcc 694 milliards. d' accord. bee mujjante mujjuñu si lu dul. un milliard deux cent ya nga xamante ne Karim war na kaa justifier maintenant fi ma buggoon ki li ma bëggoon tontu. Alioune Badara Diouf honorable député mooy. gis nga document bi ma yore nii Mimi Touré madame la première ministre. Mhm. moo waxoon nii dañu recouvrer deux cent cinquante quatre milliards. Ousmane boo xoolee si document bii nii Mimi Touré waxoon na si ne am na huit milliards yu ñu jëlee Monaco. Mhm. bii que Mimi Touré waxee ak léegi léegi mu am ñaari weer. Mhm. te moom wax na léegi mu ne àttewu Monaco bi vingt cinq ju en janvier bii passé la woon. parce ah, que vingt cinq janvier janvier bii ñu ngi àtte àtte bi jeexagul. parce que maa ngi lire ci Soleil mu ne le tribunal de première instance de Monaco nee na a rejeté la requête de Karim Wade. ba ban la rejeté. Mhm. nee na euh, apporte donc euh, nee na waaw Soleil du jeudi la mu ne rejeté na requête Karim Wade. ñi ci compte yi nga xamante ni mooy kontam ak bu Biba Bourgi bi ñu waxoon nañ ko leeral foofu. te ñoom dañ ban requête la rejeté. Mhm. état du Sénégal moom moo demandé pour confisquer les comptes de Karim Wade. ñu bloqué xam nga xam nga xam nga li xew moom mooy état bi ñoom dañu bëggoon ñu confisquer comptes yi bi bëggee ñu confisquer comptes yi Karim wax nii ak ak avocats yi ni état bi amul droit boobu. Mhm. loolu noonu la la Monaco wax ne enquête. état bi am na droit waaye waaye taxul xaalis ba fa nekk mu moom ko nu jox leen ko parce que état bi moom la mu bëggoon mooy xaalis bii nekk foofu noonu nañ leen ko jébbal Mimi Touré bind na jébbal nañ leen ko mu si kay bi ma la jox ni mu ngi nii mhm. d' accord bind na euh, mhm. kenn atteegul ko moom te kenn waaw ñoom nan la xam nga waxu caaxaan yu toll nii la ñuy yore dëkk bi depuis di nax nit ñi mhm. depuis 2012 ba léegi jot nañu xaalis bi mu ngi si biir fii nii jot nañu deux cent cinquante quatre milliards ah, alors que atte boobu noonu ba léegi ñoom ñu ngi sàkk ñu atte ko maintenant li muy wax sànq ma wax ma wax ak euh, moom wax ak ñi mel ni Marème Fall si Marème Fall ma benn rakk la daf ma laaj fan yële passé mu ni ma euh, euh, waa Ahmed benn benn waxee ne Karim dañ ko génne dëkk bi la tax mënu la ñu moo li doon laajte léegi hmm. ma ni baa demee Gambie baa bëggee ñibbisee baa amulee carte d'identité doo ñibbisee Kanaw mhm. wala du dëgg Gambie gii la ma wax mhm. Gambie baa boo fa bëggee joge bëgg dugg Sénégal fokk nga am carte d'identité Karim amul carte d'identité waxuma passeport ba ñuy defar carte d'identité di ko renouveler d'accord bañ Karim am pièce d'identité moo tax Qatar amul woon commission fàttaleeku nga loolu Ousmane Karim bi ñu ko fi génne passeport bi bi ko yóbbu Macky Sall moo ko defar ñu def si benn fan Karim ma ne yow mii mënuloo jógee gàmbi gii ñëw dugg biir Sénégal te yoruloo carte d'identité d'accord bon nan la Karim Wade war a mën a jógee katar te yorul passeport xam nga ku ñu exilé bu ñu lay exilé sëñ tubaab bi bi ko fi tubaab yi di jële mm-hmm. dañ ko yëpp si bato yóbbu ko ba ñu demee ba mu war a ñibbisi dañ ko yebaat si bato indi ko Karim Macky Sall moo ko génne dëkk bi. jox ko benn kayit. defaral ko passeport bu am benn bés. donc tey Karim fa mu toog. Mhm. amul passeport bu ko dellu si. waaye nag waaye nag bu fekkee demande sociale la woon si Karim génn dëkk bi. Mhm. war naa nekk tey demande sociale professeur. Mhm. si nii même bu fekkonte ne Karim Wade dafa def lu dul yoon état bii fi nekk warta am droit. exiler un fils de ce pays. defe naa lool ñun xaar nañ leen si bu baax. te yéen am ngeen yaakaar xaar si yëpp ñu wax ni. Mhm. Karim doomu Sénégal. parce que nee nañ dina ñëw. kon léegi il faut non di dina forcément xam nga lu tax dina ñëw mooy. Karim fii la dëkk. Karim ay sëriñam fii la nekk. Karim doomu dëkk bi la ñun dañu wax nu nii Karim mooy suñu candidat te Karim di un excellent candidat. Mm. am na fit. Mm-hmm. am na fulla am na jom am na xam-xam. mais ku amul carte te wóolu nañ ko mënoo wootee nag nga ñibbisee ak nag non non pas mënu la wootee carte d' identité boo bindoo ñu jox la carte d' identité Macky Sall moo ko fi génne si guddi digg guddi ñu dem ñu dem kaso ba d' accord photo ko wutal ko passeport digg guddi mi ñu ko defee noonu nañu ko fekk Qatar wutal ko passeport benn benn bés parce que man du ma joxe passeport kon nekkinam fii daal lañ bëggatuloon moom. man du joxe passeport yow doo joxe passeport Karim bi jox boppam passeport. d'accord kii ka joxoon passeport digg guddi. def si benn bés. na ko wutal passeport bu moon na ñëwee. d'accord d'accord hmm. maintenant ñun li ñu dul nangu wax nañ ko daaw. Hmm. dinañ ko wax ren bu dewee déwénee dinañ ko wax. Macky Sall am na droit nekk candidat professeur mi am na droit nekk candidat sénégalais la. Hmm. Ousmane. ñun dañ jàpp ne professeur kenn amul droit wax ñu ñun ne ñu amuleen droit am candidat ñun ñoo leen di tànnal seen ab candidat ñun PDS parti lañ dañu wax ñu ni Karim Wade mooy suñu candidat si congrès bi ñu ko attee Sidiki Kaba taxaw mu ni Karim Wade garde l'ensemble de ses droits civiques et civils defe naa dégg nga ñu ni nañu fexe ba ñu yemale bu Karim bu bu fekkee Macky Sall moo moo war a gagné na organiser élection yu jaar yoon joxe carte d'identité yi fexe ba fépp ay élection am fa. bañ toj bureau yi comme ni mu ko defee Touba. Mhm. bañ a fermer bureau comme ni mu fermer woon bureau yi Ndakaaru ak fi nga xamante ne fa la néew doole ubbi biro yi Matam. d'accord doxal yo élection yu jaar yoon. Mhm. bàyyi ñëpp ñi nga xamante ne doomi dëkk bi lañ. mu di Khalifa Sall mu di Karim Wade. ñu bokk ci jongante bokk ci jongante bi lu ko mooy. Mhm. lii mu bëgg a def duñu ko ka may tey duñu ko ka may suba parce que amul lenn lu ko yoon may si dëkk bi si wàll woowu. lu munu mayul noonu. d'accord dinañ ci te lu mu leen jaral nag jaral nañu ko. d'accord euh, Ameth Ndiaye El Hadj Momar Sam parce que Karim Wade moom nga xamante ne dañ ko gracier te mu nekkoon prisonnier comme nag yoon atte woon na jàpp nañ ko baal nañ ko li tax mun a toog ci réew moom lu jaaxal nit ñi la xaw ma ndax yow am nga ci ay xibaar comme leneen la ca tegu moo ñooñu ngay wax ne vingt cinq dignitaires yi ñu tuddoon te ngeen wax ne kenn warta nekk ci biti nag lépp dañ war a lañ bat aussi saytu mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne ñu ngi junñu ne mën nañoo nekk ay candidat à la présidentielle ci te waxtu waa ngi dem parce que ay weera ci des est-ce que yow loolu itam nekkul lu xaw sa bët dafa am loo xam ne billaay daf ma jaaxal mbokk aw naka mën a gëme ne Karim Wade mm-hmm. dañ ko takk yóbbu ko Qatar waaw bàyyi ma wax rek. Mm. dama laa dama laa tontu. Mm. ci la rafet. Mm. di nga ko takka yóbbu ko Qatar mënatu la ñëw. te boobu ba léegi. Ousmane. kenn mosula dégg PDS ne taxaw ne nañ ko dellu si. dañu wax benn soxla waaye déglu waay bàyyi loolu nga. Karim Wade ko waxee woon olof comme ni ma ko waxee. ko. ñu daka takk guddi ñu dugal ko oto police mais loolu yóbbu ko ba si kanamu avion bi oto police moo koy yóbbu ba si ba si buntëb avion bi ko in yeewu ko Ousmane ndi yeewu rakka montagne bi daal rakka rakka rakka kamak mais loolu ko loolu noo ko mën a gëme non non loolu moo am bàyyi moo wax rek loolu moo am aw aw aw journaliste bi hmm. aw mi xamee ne ci ay jëf ngay ngay ngaa ngaa sëkkandiku ngir liñ bët mbir mi ndax war na ne wala amu leen amuloo ci benn gëstu loolu noo ko mën a nangoo sax ñu koy wax nga ngay toog que parti bu mel ni PDS ñu jël dirigeant yeew ko yóbbu ko te mu am droit grâce bi c'est un truc de droit il est libre ngeen nangu loolu boobu ba léegi loolu yow mën nga koo gëm xam nga maa ngi naw <laughs> seen seen collègue bi Jean Meissa daf ci bind benn article c'est lumineux dafa dafa leer c'est-à-dire que nit ñi di bu ñuy ut xam nga lan moo sacré ci journaliste ak juge mhm. le fait les faits yow man nga nangu PDS na nemm ñëpp toog dirigeant yëpp toog ñuy takk Karim di ko yow di ko yóbbu kenn doxul mais quand même nañu bàyyi ndëkk ndax ñin ñi kon waxtaan ba juboo daal am na amul benn waxtaan bu juboo gis nga mbir mi mhm. boo déggee waa Qatar bi mu fi ñëwee li mu wax mhm. seen diggante la ñoom seen diggante la ñoom ma wax la lenn aussi. Mm. am na lu lu lu tegu ci loosul euh, Karim. Mm. mooy dafa war lu mu war a fay. gis nga contrainte de corps boobu ñu wax. Mm. teggiw ko de. ba ñëwee fii ba fayulee. ñu ni mën a mën na dugalaat ci ci kaso bi. ah bon loolu ngeen di du man non yow dégguloo wax bi xam nga man du man. li may wax fii yëpp du man. mais loolu candidature am. day am problème parce que déglul déglul mu wax la tuuti ci affaire candidature. gis nga affaire candidature. caution boobu mënta xam nga dama bëgg ñu déglunte rek mm-hmm. ci li ñuy waxtaan ne ñuy leeralante mm-hmm. ba suñu xam-xam fa ma yem mm-hmm. in yemale ka fa kii moo ne moom ma ngeen di waaj moo di ne nga leeral moo di ne bu amee sax ci yoon bu amee ay sañ-sañam ak yelleefam kenn laalu ko xam nga kan mooy décidé ndax candidature am war na am wala am le code électoral code électoral ah yi xam ne moo fa ne ci ay ponk ñoom ñooy wax ndax mën a nekk candidat wala mën a nekk candidat waaye du loi bi yaa ngi dégg wax bi kon loolu dafa féete boor dama bëgg rek ñu euh, wax ci lii xam ne moo mën a am wax nga loo xam ne lii man mënumaa nangu Karim bi ñu gracier ko yoon may ko sañ-sañam mu génn ñibbi këram ñu takk ko yóbbu ko. mais looloo am ka mag ma ne loolu moo am. waaw déglu yow Karim Wade. xaaral mu leeral moo am ka mag. xam nga ba ma waxee ba ma wax daxala noppi. léegi de daxala noppi ba ma wax ba pare. déedéet du ma la may léegi léegi la génnee in dugal en waa PDS en nangu ko. ah waaw en en saxaw di seetaan rek la signe en eh, eh. est signe. Karim Wade dañ ko exilé. <laughs> waaw léegi ginnaaw loolu la kon ginnaaw loolu man mënatuma ci sori. waaw mënatuma ci sori man li ñaan rek mooy borom borom gëstukat yi. Mm-hmm. ne ay. taskatu xabaar ngeen lijjanti loolu. loolu moo am lan moo mën a ne lan moo yanu maanaa lu nit mën a dégg. koo xam ne dafa am sañ-sama ñu xañ ko ko mu taw di siiñ ñenn ñi taw di siiñ. man na ma ne loolu bu amoon ci lu wér. PDS keroog na génn ci mbedd bi xeex lu ma wóor kuy xeex ne nañu def code électoral bi ni wala code électoral di nga bàyyi loolu mu jàll. sañ-sañ boo xam ne eh, au plan national et régional international jooyu ko fende xam nga portewul plainte fenn de ci loolu dañ ko exilé parce que loolu mooy dañ ko xañ ay droit am par la force loolu kenn mënu ko nangu ban démocrate mënu ko nangu kon ñoom lu ñu taxawee mhm. boobu ba léegi day weddi jooju wax nga loolu yëpp nag lu mu andi mooy lan mhm. man ni ma gisee taxawaayu PDS mooy taxawaayu yëngal réew mi rek du taxawaayu lii mooy yoon nañ topp yoon lii la ñu war a waxtaane nañ ko waxtaane waaye na yëngatu rek moo tax ñu ngi langaamu ci lépp loo xam ne feeñ na ci bitim réew def ko muy seen ngànnaay nit ñi rek war nañu yeewu ci loolu ndax ab xale sax mënu mënuñu kaa nax ci loolu beneen bi mooy Sarr moom wax na wër na wër na dem indi ay yukki fu ne mu jël fa nee na ci man lay jële man du ma du waxtaan wi waxtaan wi du man waxtaan wi du li may wax hmm. waxtaan wi mooy li nga andi ne wooñu ku ne nga ne lii laa bëgg ñu waxtaane ko dama wax ne bu fekkee ne bëgg na leeral ci lépp lu muy wax mu ne wax na fi ba pétrole xam naa boo ëllëgee mu wax leneen jama wala or du fi génn nañ toog ñu waxtaane dama bëgg ma mm. ñaan ko ma ñaan la nga woote waxtaan woo xam ne dañuy def bilan mm. boobu ci la wala nga ne mm. dañuy woote waxtaan ci affaire pétrole bi ressource euh, waaye wax fi laal fi tuuma fii kii sang sa sa sa mbër ba mu set wecc te li ma wax ci sa mbër du lenn loo xam ne lu amul ma àndax yow ci lenn. li nga gëm yow. Ah, man maay wax di waaw da nga ko tilimal yow gëm nga ni la nga ko war a tilimal. mais man gëm ma loolu. d'accord merci continuel du man maay wax. waaw du ma wax loo gëm yow. waaw vous avez la parole. li ma gëm. ah li ma xalaat loolu laay wax. teg ko ñu waxtaane ko. te loolu boo seetloo yaa fi andi loolu yaa jëkk tudd sa sa mbër di ko raxas rek. boo saagoon fii dina dina gaañu dina xoosu de. ba mujjee ba mujjee ba xoosoo ba naaj ca la daa def. waaw bas ba setee kañ ndax soxla wu la ragaat. waaw keset. waaw soxla nu koy ragaat di ko ragati di ko ragat uti njàmpe. du tontu ñenn ñi am ah, ah, mbombu du tontu ñenn ñi. kon li ñu wax ne parce qu'il aspire à diriger un pays comme na li ñu wax ne blanchir na ko. te rew dese na loo xam ne non ah. man man bëgg déedéet. wax ci wax jooju. xam nga li li mu ko tudd di ragga rek. moo tax nga ma fàttali li amoon démb ci kàddoom. waaw justice bi nag li nga wax dëgg la. justice bu xasee ne. idi chantier yi ñu ko doon topp leer na. waaw bokkuti. waaw ñu ne bokkul. waaw ñu nangu ko. waaw waaye aussi da nangu ne. kii ñu topp. Mm-hmm. ba tëj ko. Mm-hmm. ba mu tëdd. Mm-hmm. ba ñu alamaan ko. justice wax na leer na. comme justice leeral na foofu. ci mbiru Idrissa Seck lu tax toujours ngeen ciy revenir ah. yaa ngi revenir ci ay ah, ay mbir parce que vous avez mm. peur. <laughs> non la <laughs> bi laay mën naa la giñal ne ça. Mm. au niveau au niveau de sa mouvance présidentielle. waaw léegi maître mu terminer après l'intelligence est une carence. waaw léegi loolu mooy seen problème. waaw ma <laughs> daaneel xam nga li am solo. Hmm? ragal sa bopp yor sob saabu sa njàmpe ak sa mbomb toxul a set xam nga lii tax a set ci réew mi mooy askan wi setal la. bi ragg bii ngeen di ragg yëpp hmm. bu leen askan wi bu askan wi setul du set kan parce que moom nee na moom askan wi moo tax dama bëgg a wax rek ne pour daaneel ne hmm. mu ñu waxtaanee li ci tax a indi fii ñu wax ko ba mu leer nga kii ni ñu defee nii leeral mbir mu wax bu ma d'accordul ne ko man ànduma ci lii moo tax mu wax ma ma wax ka mu ne lii ànd nañ ci de lii ànd nañ ci hmm. te li ñu ànd lu wér la mooy réduction des comptes ñëpp la war a laal ah nu mu mën a demee képp koo xam ne yaakaar ne yoon yaakaar na ne am na loolaal ci mbir bi war na la oo lijjanti say mbir ci nii wala ci nale d'accord du dëgg lépp loo xam ne aussi day génn ci mbir mi mhm. ne jaar ci yoon rek mhm. waaye les faits sont ay li wax jaar na fii dañ ko def lii politique moo lal fii jëf ji lan la lan la mhm. def ma fàttali tamit gis nga dama wax sànq ne setaluñu rek Karim Wade ci affaire euh, euh, corruption bi dañ ko seetal tamit ci affaire quarante six milliards Singapour. Singapour justice yoon da ko setal dana lii àndu ci. Mm, na ko génn nañ ko génne. Mm-hmm. léegi rek laa bëggoon wax. d' accord fàttali ñi nañ jàng nag arrêt bi. Mm-hmm. accord dinañ ci dellu siwaat léegi parce que Alioune Badara Diouf ci foofu laa lay interpellé ci kaw Karim bi nga xam ne ku ñu tëj gracier la nga xam ne presque mun nañ jàpp ne yaa moom sa bopp fu la neex itam dem tak mais bam demee ba léegi itam mu ngi noppi. bu mel ni dañ ko terewaale wax wala boog parce que añuñam en tout cas jàpp nañ ko exilé dañ ko tere wax te moom itam nee nañu toujours dañuy wax ni ñi day war a dellu si ci anam boobu nga xamante ne mbir mi leen demee na ko amee ndiir leeral na moom moom nee na moom mbir mi leer na léegi dañ ko yeewu ay loxoom yóbbu ko ci biti waaw yow lan nga mën a indi leeral ci askan wi nga xam ñu ngi xaar ñëw Karim Wade parce que leader am toujours ñu ngi waxtaane loolu mooy seen candidat donc euh, <clears throat> avant ma si yegg tuuti may ma mu wax ne débat bi ça euh, ne tourne pas autour de Idrissa Seck mhm. def marketing Idrissa Seck loolu indiwuñu fi ñoom boo xoolee seen communication fan yëpp muy Idrissa Seck de ay ñooñam vraiment ah, <laughs> nu nu ñu ko ah, nu ñu ko ah, nu ñu nu ñu ko ngembe la ñuy wut nu ñu rafetale deram ak yooyu mhm. donc loolu mooy seen débat moo tax foo leen invité mhm. même booy wax sax affaire sociale sax danañ si indi Idrissa booy wax affaire culture sax ñu indi si donc loolu ñun jaaxaluñu te xam nga Idrissa Seck wax dëgg neex yàlla waruñoo mën a waruñoo mën a tiitar koo xamante ne ñun rawee nañ ko dans le département de ces fu mu dëkk fa mu doon président conseil départemental trente mille voix waay waay waay kooku di dinañu jaaxal Karim Wade mi nga xamante ne il n'a jamais gagné son bureau de vote bu muy puissant ah di yor ciel euh, beeg bi ñu koy duma bureau de vote am di ko duma centre de vote di ko duma si si si si commune am duma ko dans le département de Dakar kooku mun na mun na tiital Macky Sall moi je dis non donc loolu dañu koy wax rek parce que on est en débat politique ku nekk rek di jéem yëngal sa mbër euh, xam nga Momar wax na ko léegi professeur Momar xam nga toog fii di wax waxu pétrole ak gaz ak xam nga loolu vraiment débattre nañ si ba sonn indi indi nañ si ay ay leeral ba ba sonn je pense que ne Aliou Sall aussi wax dëgg neex yàlla pétrole génn fi wekki bañ koy jaay moom toor bu mu kii rek mooy moom kii bu mu am rek mooy wax dëgg yàlla li mu doon euh, frère président Macky Sall parce que gis nañ ne Karim Wade dafa topp Abdoulaye Wade ba noonu la ñàkkee pouvoir l'affaire Karim Wade donc moo tax ñu singale Aliou Sall rek pour que créer affaire Aliou Sall pour que ça puisse faire tomber Macky Sall mais du benn parce que kii quand même da ay tuuma la yoo xamante ne si gémmiñ si si làmmiñ parce que euh, procureur Aliou Ndao mi nekkoon au cœur du dossier ci CREI bi. moom wax na fii bu yàggul ci benn séminaire bu gars yi amaloon ne yoonu Sénégal ni muy doxee léeg-léeg wañaar la ko di ci am te moom xam nga ne duñ ko daq am pleine audience aussi ci mbir moomu mu xaw a leen di mën xel yi encore. waaw xam nga xam xam nga loolu. Mm-hmm. quand foofu foofu sax buñ jaarul sax ñu fay yegg. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañ ne euh, président Macky Sall c'est lui qui nomme au poste civil kii euh, il veut donc par rapport à ça je pense que ne bu ko joxulee satisfaction wala kii moom am na am na droit bi am na prérogative bi teg kii teg ki parce que mais effectivement loolu loolu la ko yoon may kenn mënu si dara benn mooy gis nga gis nga rapport wu rapport wu kii bi ñuy wax ni banque mondiale mais ça date de de de de quelle de quelle année ah 2012 2012. ñu jugé Karim Wade en 2014. Mm. mais quand même ñuy soit rapport bu fekkoon ne sax rapport bi dafa ñëw après le jugement. mais ça ça vraiment c'est un faux débat. nañ ko ne nee na dañ ko versé wul ci dossier bi ñu doon àttee. mais yéen yéen lu avocat versé wuñ ko ci dossier bi. amuñu ko woon kon léegi lañ ko am. mais xam nga loolu ay waxu caaxal la. Mm. Euh, beneen bi je pense que ne. li may wax ci Karim Wade. waay waay waay. ne dañ ko dañ ko exilé te te yow xam nga wóor na la ne Karim Wade sénégalais la exilé exilé français non mhm. waaw dama la nag. exilé moo la. waaw léegi yeew génne ko mhm. léegi lu tax mënul ñëw parce que amul carte d' identité. parce que parce que dañ ko génne dëkk bi. non non non kii génne dëkk bi mu la Macky Sall bu subaa. Euh, bu taxawee si télé yi wax ne Karim Wade exilé wu ma ko mën naa ñëw. bu gannaaw subaa ah, Karim ñëw waaye ñëw mën a. <laughs> non dégg professeur. bu fekkente ne li mu wax kenn gëmu ko wala ñun li ñuy wax gëmuñu ko. Ndiir na président Macky Sall président de l'APR wax ni Karim nekk en exil. am nekkul en exil kon su boobaa mu gannaaw subaa kari ndéer xam nga xam nga li ñuy wax nii. Mhm. wallaahi sénégalais yi dinañ leen reetaan. Mhm. parce que xam nga mooy lan gis nga pas mal de fois. Mhm. Hmm? ay sénégalais nekk nañu bitim réew. amuñu benn kayit seen passeport réer wala mu sànku seen seen carte d'identité amuñu ko. te bu ñu buggee ñibbi seen réew en tant que sénégalais ça ne pose pas problème mu mënta nekk problème parce tey jii. yow boo nekkoon Amérique bii nii rek wala France nga bëgg a si Sénégal tey yoroo benn papier su la neexee dem si consulat ba léegi tey tey tey ñu defal la sauf-conduit léegi nga voyage jarul ngay am carte d'identité Karim moo fa denc boppam. kan mooy def ko sauf-conduit bi. mais con consulat yi. kuy consulat bi Macky Sall. ah non non non mais Karim c'est un citoyen sénégalais. kon Macky Sall a ñibbi si. bu Macky Sall te nee amul amul sax carte d'identité. waaw waay na fexe. kuy defar sauve conduite du Macky Sall. Mm-hmm. déedéet Macky Sall defar du sauve conduite sauve conduite droit sénégalais yëpp la du dëgg. Mm-hmm. waaw tey jii bu bëggoon ñëpp si laa defar ku ko bu bëggoon ñëpp si. Mm-hmm. du ko jaral sax wax dëgg yàlla benn waxtu. bu demee consulat bu gën a jege fa mu nekk foofu danañ ko defal. Euh, titre sauf kan moo ko koy defaraat parce que bu yàggul mu mu mu mu ñëpp Sénégal loolu loolu loolu amul problème. kan moo ko parce que bu yàggul émir bi ñëw na fii ak boo ko booleeg rapport bi ñu bëri jàppoon na day gën a ubbi bunt bi yombal ñibsi bi mais dafa mel ni ni ngay waxee yëf yi des na lu bëri loo xamante ni. Ah, man xam nga loolu nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñoom rek ñooñu si mun a leeral. parce que dafa indi benn argument boo xamante ne ma ne ko loolu mënul téye Karim Wade foofu. Mm-hmm. léegi bu indee beneen dinañ xam lan nañ koy tontu mais li am solo mooy. Mm-hmm. Euh, sànq wax nañu ne dellu si na sànq si affaire Mimi Touré deux cent nangam milliards bi waxoon Mimi Touré. Euh, mën naa wax mën naa koy waaw. mën naa wax mais li gën a am solo mooy li nga xamante ne moom la gouvernement wax muy cent cinquante deux milliards yi du dëgg. parce que Mimi sa la sa la nekkoon. Mhm. mun na am évolution euh, somme bi xamatul nu mu demee parce que nekkatul dans un gouvernement loolu mun na ne mais. lii moom dafa leer nañ et traçable à travers les lois mhm. euh, successives entre 2012 ak 2015 mi ngi nii mhm. deuxième loi de finance 2013 inscription yi inscrit nañ ci trois montants mhm. benn bi vingt cinq milliards benn bi vingt quatre milliards benn vingt quatre milliards euh, six cent beneen bi euh, douze milliards trois cent loi de règlement 2014 pour la gestion 2014 inscrit nañ ci 39 milliards 520 millions euh, première loi de finance rectificative 2014 inscrit nañu 45 milliards deuxième loi de finances rectificative euh, inscrit nañu 50 milliards loi de finances initiale bu 2015 inscrit nañu 25 milliards du dëgg donc lii dafa am traçabilité mu leer nañ mm-hmm. xaalis boobu fi ñu ko dugal donc loolu du amatul vraiment amatul amatul coow léegi sa hmm? voilà ñaata moo si jóge si Karim waaw xaalis bi mu wax léegi ñaata la si Karim joxe parce que waxoon ba tudd ay immeuble mais yaakaar immeuble delloo nañ ko ci diggante bi <laughs> xaalis bi mu amul benn dërëm bu si jóge si Karim hmm. déedéet benn fistine non non non lenn lenn mën naa la ko wax lenn mën naa la ko wax benn fistine hmm. l'agent l'agent judiciaire de l'État yow gis nga génn ko sànq si soleil yu le le vingt cinq janvier waaw moi moi je pense que ne dafa leer nañ moom dafa def conférence de presse mu ne l'État a commencé à recouvrer ces biens spoliés par Karim Wade 18 milliards on été restitués n'est-ce pas 7 milliards bloqués dans des comptes des appartements aussi euh, ñu ngi koy ñu ngi koy retiré donc donc donc par rapport à ça mhm. waay waay xam nga kook c'est une voie autorisée dafa waat ne man dëgg rek laay wax. kan la non l' agent judiciaire de l' état. du dëgg donc bokkul. waaw bokkut ak man muy wax. wala yow muy wax wala keneen mun nga maa weddi mais kooku mënoo ko weddi. 784 d' accord. ki ñaari téeméeri milliards. wala keneen la. mais mais lii mu wax nii. ak barke démb la ko wax tey je pense que ne leer na. d' accord léegi sama taal Sarr léegi gannaaw nag sa leader Idriss rek nga wax ñu ci waxu Karim Wade bi nga xamante ne tey moo nekkaat coow li parce que dañ wax ne rapport bi mu ngi génn en 2002 seetal Karim Wade ñu àtte Karim en 2014 ba dara Diouf na ndax avocat dañ ko yëguloon euh, ndiir ne na avocat yi jotuloon document ñu ngi koy door a jot loolu boo ko boolee ak visite bi nga xam ne émir ñëw na fi bi ñibbi yaakaar naa visite Macron lu médiatiser la àddina bi yëpp jot ci waaye ba xamuñu li ñu fi waxtaan ak li xew ndax yow mu da ngay rejoindre sa loo loo xale ci visite Macron. ma ne médiatiser nañ ko bu baax a baax. Mhm. mais bu émir bu Koweït bi. Mhm. xamuñ ci lu bëri wala yëguñ ci lu bëri. Mhm. yow ndax da ngay rejoindre sa leader bi wax na mbir mi deal da cee am mu mel ni Karim day waaj a ñëw wala lu suliwaat wax ji yow ci sa gis-gis. man li ma ciy wax rek mooy que ni gis nga mbir day leer rek mbaa mu lëndëm. mbir moom ku ne leer na c'est c'est transparent sénégalais yi ñuy waxal. laissons les Sénégalais juger kooku mooy sunu point de vue ñun mais jàpp nañ ni daal mënoon naa gën a leer ci bopp Sénégalais askan wi yëpp man bopp naa ni ba ma juddoo ba tey c'est la première fois ma gis justice Sénégal incriminé nit ñu jël ko génne ko bopp ba tey ñëwul ci dëkk bi te ki bëgg kooku ñu in kooku ñu génn kooku génn dëkk bi dafa bëgg a jiite réew mi bëgg a jiite réew mi ba pare ñu ni yow pour nga ñëw ci réew mi dafa nar a problème mais problème am na kon kooku bëgg naa ñëw bëgg jaal si sëriñam mais bëgg naa ñëw bëgg si sëriñam biñ ko génnee fii waxul déggu leen ni dafa euh, euh, dafa bëggoon dem Touba ah amul xanaa kay war naa mën a taxaw sax même bu vingt 24 heures sax woo ay militant ci réew mi sax ni leen jërëjëf gis naa seen taxawaay ba pare jël vol dem yoonam loolu sax amul ba pare ñu ne lépp leer na lépp a jaar yoon mais kooku kuy sénégalais dina lëndëm dina lëndëm ci sa xel kooku mooy benn deuxièmement il faudrait pas que les gens di sànni xeer ci jardin nit ñi ba pare bëgg waxaale seen soxla xam nga mu ngi expliquer fii ay loi de finances rectificative Mimi Touré def nañ fii def nañu naa def nañ nangam ak nangam loolu du débat yi te pourtant mu ngi leeral de mais dama bokk ci track bi. parce que non damay damay leeral parce que. mimi bi mu waxee xaalis bi bi tudd xaalis bi. Moustapha Niass président de l' assemblée nationale. moom moo njëkk a taxaw monté au moom yëgul gisul tinul am nu lu amul. Mhm. te pourtant moom moo jiite institution boobu. ci ñaari législature yi. waaw moo ko jiitee mu ne moom yëgul gisul tinul te encore une fois de plus Mimi Touré de n'importe qui nag. bay wax noonu rek dans le vide. trac bi doomam la parce que. moom mais moo mais lu am am moo ko may. lu mu ñàkk itam yaakaar moo yëkkati lépp lépp ci moomam la. tey jii buy wax du du sàmbataal buy taxaw di wax nii buy wax kàddoom dafa am dafa am dafa war am punch li gars yi naan euh, euh, la sacra la sacralité de la parole loolu loolu du lu ndaw lu rëy la li wax sànq nga fàttali ko. muy xaw a rey boppam ma ne ko dalal rek mm-hmm. en pleine séance mm-hmm. en pleine séance ngay lever ay fonction nit juge bu war a taxaw nga taxaw naan non am na pouvoir parce que le président de la république c'est le président de la république gardien de la constitution mm-hmm. chef suprême des armées et de la magistrature clé de voûte de toutes les institutions c'est lui qui nomme les emplois civils et militaires ndomba loolu dañ ko ko jox moom moo ko moom waaye dañ ko ko jox mu moom ko mu war ko servir pour le pays mais waru ko utiliser pour d'autres fins fii nag loo fi gis ah buñ la fayee dana la ko leen di waxee buñ la ba lebalee dara ñu fay la ko nga mer la nga leble dafa baaxul nous nous une justice équitable dafa am ay piliers yoo xam ne warul sëngeem la justice l'éducation santé ah bi nga xamante ni tey jii milliards yu bari yi ngay dégg yépp ñu koy tudd ñoom la santé représente que pour cent du budget national 5 pour cent du budget national d'accord yow da nga jàpp ne te pourtant te pourtant bala nga naam ne fa dinañ ci waxtaan parce que nañ ci débat dinañ ci dellusiwaat mais yow da jàpp ne kon ci kaaw Alioune Ndao ak la ca tegu. ak moom moo nga xam seen voie autorisée comme ni ngay wax ne justice bi léeg-léeg ñu woñaar ko. da mhm. nga bokk ci ñu jàpp ne léeg-léeg nga war a am dëgg te doo ko mën a am ci wàllu ñuy àtte wala. mais justice bi ni muy doxee. Hmm. pour conclure justice bi ni muy doxee sénégalais yépp ñu ngi suivre ci kaawu Karimo ci kaaliw kaawu xalifa Sall hmm. ñëpp ñu ngi suivre sunu justice ni muy doxee. c'est aux Sénégalais de juger nee naa la sànq ñu ngi toog. ñu ngi toog non du yow yaa may laaj. dama ko bëgg a interpeller rek si kii boobu noonu. parce que xam nga xam nga boobaak léegi mi ngi wax ni justice bi ni muy doxee. mais te tey sànq moo fi ne justice boobu. moom moo blanchir Idrissa Seck. moom moo ko wax. donc kenn waratu koo toppe lenn kenn waratul wax dara si Idrissa Seck li mu mm-hmm. détourné woon Thiès. Mm-hmm. si chantier de Thiès mm-hmm. ma wax. parce que wóolu na justice am. tey jii justice boobu moo fi ne ba léegi de. ñoom ñooy justice sénégalaise changé hmm. wul de moo fi ne ba léegi. prérogative yi mu amoon moom la am ba tey. Hmm. Hmm. tey jii bu fekkee ne dafa jël décision boo xamante ne arrangé wu la. du benn nga sànni xeer justice du benn bi ñuy waxtaanee. bu fekkee ne jël na décision bu la arrangé. Ah. yow léegi da nga comme comme comme may naa la bay Ousmane. may naa ko ko waaw kay comme da nga ma posé question. Ousmane moo la may pour nga posé ma question. dama lay tontu ni la. Ah? justice boobu. dafa tranché. ñëpp a xam ni politique la ña taxawoon bëgg a tilimal bëgg a tilimal Idrissa ah. en l'occurrence maître Sey moom moo taxaw fii devant tous les sénégalais ni le problème de Idrissa Seck c'est un dossier politique. ñoom ñoo doon def seen mig mag. gis nga la cas de Idrissa Seck. ñun duñ ci sori parce que xoolal. képp ku bokkoo ci loolu rek kaawu Karim bii nag. amul mag wala yow supporté woo dara non dama la kaaw Karim bi mhm. kaawu le cas de Karim mhm. le cas de Karim dama la. dañu toog fii nous sommes pas plus intelligent que les Sénégalais qui nous suivent Sénégalais yi ñu seetaan gënuñu leen intelligent le kaada de Karim moom laa ni ak le cas xalifa Khalifa Sall justice bi ñu yor muy sunu justice ñun ñëpp di gis ni mu doxale ci wàllu Karim ba fi ñu toll nii ak ni mu doxale ci wàllu tey jii li fi nekk xalifa sàll ba fi ñu toll fii dama ne la peuple boobu tey moo ñor ñor goo xamante ni ñoom ñooy tranché mm-hmm. li ñu war a tranché soreetul mm-hmm. parce que tey nous ne demandons pas autre chose mais nous demandons un bilan ay promesse c'est fini c'est terminé d'accord léegi Ameth Ndir parce que euh, El Hadj Momar Sam mu ngi koy wax sànq ne bu fekkente ne dañ la condamné nga am ay amende yoo war a fay mhm. contrainte de corps aussi nekk na loo xamante yoon mën na ko yëkkatiwaat ci ki nga xamante ne dañ ko bàyyi mhm. yooyu yëpp nag boo ko dajalee ak ni ñuy waxee ne Karim day ñëw ak lu mel noonu mhm. da ngay tiit naan ndax da ngeen koy waaj est-ce que yu mel noonu aussi nekkul probabilité buñ mën a sóoraale maanaam mu ñëw ñu ne ko kat euh, amoon nga fi lii waroon nga ko fay mënoo ko fay dugal wala lii sama caution la ñu ne dugal nañ ko ci lee est-ce que yéen ba léegi dafa mel ni ñu tëb dal ci xal mu dese leen beneen tëbin bu gën a kawee waaw hmm. xam nga Ousmane ñun hmm. boo seetloo depuis 2012 ba léegi nu waxi démb moo nekk nu waxi tey hmm. dañu waxoon ñu ne Karim Wade jëlul alalu réew mi corps de contrôle yi nekk Sénégal yëpp IGE cour de comptes contrôlé nañ ko kenn si ñoom remettrewul en cause ni mu yore woon ay ministère am remettre ñu en cause gestion OCI OCI ANOCI bi remettre ñu en cause dara si moom nu mu nu mu doxal amul benn këyit bu mu génn si Sénégal bu wane ne Karim Wade li mu yoroon na mu ko yore na mu ko doxale jaarul yoon amul benn këyit boobu ba léegi itam depuis juróomi at bi ñuy wax ba léegi amul benn fistine bu nu génne ñu ne dërëm bii si xaalis bu fi Karim jëloon la mu ngi nii ñu wan ko yi woote comme ni ñu woote woon def conférence de presse Alioune ndaw def ko fi ba léegi kenn woowul benn sénégalais nekk lii Karim moo ko jël. kon yow li agence judiciaire de l' état wax moom feesul sa ba 18 milliards yi Alioune Badara Diouf wax ne. wax na agence judiciaire de l' état document bi ma la jox sànq léegi wan naa la si mani ñoom li ñu wax ne moom la ñu yóbbu assemblée nationale baatu honorable député Alioune Diouf ak sama baat. baatu président Moustapha Niass moo ko gën a kawe fop président Moustapha Niass dafa wax mu ni dans le cadre de la traque des biens mal acquis amul benn fistine ba nga xamante ne jóge na si traque bi dugg si assemblée nationale si kees yi la fa dugg mooy cinq milliards yi muy wax sànq DP World dañu fa amoon ay action am fa dix pour cent jaay action yooyu ñoom jël loolu ticket d'avance boobu noonu yóbbu ko assemblée nationale ak xaalis yu mel noonu Eden Rock bi muy wax sànq ne dañu ko saisir ay këru bii ba bourgie la ya nga xamante ne depuis njëlbeen wax na ne Karim moomu ko rapport banque mondiale bii ñëw nii tey jii nii bii nuy waxtaane nii xam ni ma fàttali Sénégal yi ne du nun noo bind rapport du nun noo sàkku rapport Macky Sall moo sàkku rapport mhm. d'accord bon lépp la nga xamante ne jiiñoon nan ko Karim Wade wane na ni Karim Wade ku set la mhm. Karim Wade amelul Sénégal benn dërëm ba tax na mhm. ak lu mën a nekk mhm. ñun dañu jàpp ne dëkk bi dañ ko bokk professeur ak keneen ku dul professeur man yaakaar naa la si loolu lool ma interpellé la personnellement léegi yow nan ngay ñun li ñu bëggoon mooy bu fekkee mën naa nekk ñu xool affaire bi na mu jaadoo d'accord parce que ñun jàpp nañ ne Karim Wade jëlul am na yeneen li nga wax sànq dégg naa ko nga ne nañu xool CREI yi li mu àtte buggoon nañu itam ñi mel ni yow ak sénégalais yeneen ya nga xamante ne mel nañ ni yow ñu bàyyi xel ñun li ñuy wax ñun seetaluñ suñu bopp kuuru CEDEAO newuñ fa li ñuy wax sénégalais yëpp dégg nañ ko gënuñoo yeewu sénégalais yi d'accord groupe de travail bu Nations Unies bi mu wax ci détention Karim Wade professeur dégg nga ko dégg naa ko yenn yi dégg nañ rapport bi ñu bind nii du ñun ñoo ko sàkku te ñi doon bind bindaloo ñu leen ba tax na jàpp ne bu mu bëggee dëkk bi daal dañuy rafetal soow mi duggee ko marché Macky Sall mmh. Mmh. moo yor dëkk bi tey mmh. Karim Wade kenn mënu ko fay teree dugg léegi nag yàlla men problème baa ngi noonu nag parce que dañ ne yéen jàpp ngeen ni Karim Wade jëlul yéen a ngi koy xaar mu ñëw wax ngeen militant itam ne Karim dina ñëw mais yéen nag ngeen mën a dalale xelu askan wi ak contrainte de corps ak yeneen ñu ci mën a tegu ci koo xamante ni mu ngi yor ay boro parce que ñoom nee nañ cent trente-sept milliards yi amende la comme ñoom ni ñu waxe woon rek ñun lañuy ñuy waxe bu fekkee Sénégal toxuwul te dëgg ndaxte dëkk bi itam fàtte naa fàttali naa ne dëkk bi nekk na fi lu yàgg xamuñu Macky Macky Sall dina fi jog lu yàgg dëkk bi nekk fi bon Macky Sall moomul dëkk bi moomuñu mm-hmm. lii njariñu dëkk bi mooy waa dëkk bi gis ne lii yoon la wala lii du yoon ñu taxaw si ñun dañuy xaar sénégalais yi si mm-hmm. naka mu nekkoon demande social ñu leeral leen te boobu be léegi li fi li li li fi leer lépp li fi taxaw nekk benn wax mooy Séné mooy PDS li mu wax ma su fee jogee d'accord mm-hmm. na sénégalais yi jóg jàppale Karim Wade ba candidature bi mu bëgg nekk candidature mu man kaa am si jàmm ak salaam. d' accord mm-hmm. bu ko Macky Sall mënee mu daan ka. Mm-hmm. bu manee Macky sal Macky sal daan ka te mu te ñu muñ. te yow gëm nga ne loolu moom dina war a mën a am. kenn mënu kaa teree am. d' kon bu soobee yàlla. Ameth Ndir maa ngi lay gërëm di la sant Momadou Sam yaakaar na waxtu bi nañu mais boo dajalee marche opposition bi ci ajuma ji nga xam ne pour transparence de l'élection ak mbiru fichier ak lii xam ci xew ci kuuru euh, commission banque mondial bi. yooyu yëpp boo ko dajalee ak élection yi ñu dem lan nga yaakaar ne vraiment ban taxawaay la ci réew mi war a am parce que yoon def na liggéeyam waaye terewul ba léegi côté politique bi ñu jàpp ne dossier politique ba léegi ñu ngi ko jiqi loolu am naa yaakaar ne du dañ hmm. li feex ñu ngi ci jogante euh, te moom loolu mooy yàq suñu waxtaan lu gën jaa bari euh, Alioune doon na am lu mu ci wax mooy xam nga fii dégguloo fen kuy ragg euh, Macky Sall hmm. <laughs> parce que loolu du suñu problème xam nga li am solo mooy réew mi bu ñu ko bokkee bu lëf taxawee di di lu wér lu nit mën teg baaraam ñëpp nangu ne loolu am na dal nañu waaye loolu moo am bu ñu demee nag ba yoon àtte na diis na mitti na mhm. li nga doon wax muñ gi ñun nañu nangu muñ ko mhm. li ma doon wax sànq ci Karim dama wax ne man mënuma dégg yenn wax yi ñu xañ ko sañ-sañam te yoon jox ko ko ci lu wér lu leer. d'accord mënta ne. mënta ne te may yéen dama leen di ñaan yéen journaliste yi. seen mhm. bopp ngeen gëstu loolu. d'accord quand même mënuñu di leen wax loo xamee ne lii mhm. xale sax mënu ko dégg. Mhm, d'accord parce que loolu. jëfu jëfu parti bi ci loolu. di jëf joo xam ne jëfu nangu la. d'accord fañ ko waxtaanee ñoom ñoo xam. kenn waxul donc am na léegi euh, man dama mësul dégg fenn sax Karim ne man candidat la. musuma kaa dégg na ay nit daal nga dégg. nit ñi ñooñu wax rek. ay ma ne. à travers un congrès du PDS. te war ngeen amaat beneen congrès nangu ko. Hmm. xam nga dafa am loo xam ne ne. professeur Karim a été investi par le congrès de notre parti. militants yi d'accord d'accord ambitieux loolu dinañ ci ñëwaat parce que débat bu yaatu ko. waaw léegi waxtu bi dem nañu waaw. s'il vous plaît professeur mosoo dégg mu wax ko mais man bëgg naa yor réew mi. Hmm. mais bu bëggee yor réew mi. naam am taxawaay boo xam ne moo koy may mu yor réew investir nañ ko daal waaye déggoo fu mu waxee am na déggoo fu mu waxee ne bëgg na yor réew mi d'accord incha allah ñu ngi lay gërëm di la sam <laughs> di la di la gërëm di la sant Momat Samb Ameth Ndir maa ngi lay gërëm di la sant député Alioune Badara Diouf ah, waxtu bi ah, <laughs> voilà parce que waaw daa war a waaw waaw damay compléter rek euh, <laughs> Momar Samb suñu xarit bi lu wax ndiir uh-huh. ne Karim bu jàmm de am candidat la mais Karim mënut a doon candidat mm-hmm. parce que code électoral mayu ko ko yow yaay code électoral l euh, si yow yaay L31 hmm? mayu ko mu doon candidat ma ne aw aadi gannaaw code électoral moo ko wax gannaaw loi bi am na fu mu nuancé que que war am ay contrainte de corps rek euh, ak euh, kii article 32 yooyu kon yow. en dehors code électoral mayul Karim Wade mu doon candidat. kon léegi code électoral wala. mën na jéggal waat ah, di code électoral mais mais mais mais code code bi ñoo ko bokk. d'accord euh, kon léegi article yi ngir ñu mën ko gëstu. mu mën ko gëstu. non L L 31 ak L 32. L 31 code électoral li li li mu wax mooy. Ah. Mm-hmm. tout tout condamné. Mm. de cinq ans et plus. pour n'importe quel délit entraîne de facto. la perte de droit d'inscription sur les listes électorales donc ku inscrire waaye. Karim est déjà a doole candidat Karim est sur les listes. moom bu ñu mooy kontaan nañu voilà mais maa ngi di gërëm di leen sant waxtu bee ñu dem waaye am na. Karim déjà sur les listes voilà parce que kon. donc perdrul ses perdrul ses droits civiques et waaye code électoral bi code électoral bi a ko mu bokk d'accord kon dinañ ci waxtaan voilà maa ngi di di leen sant di di di gërëm di sant bu baax a baax Oustaz Assane Diouf di gërëm di sant El Hadj Mamadou Diouf mu ñu gungoon ci régie bi di gërëm di sant bu baax ñuy daan teewlu ñu ngi leen di jox daje ci beneen diine ak jamono incha allah wasalaam